asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu am nañu mbégte comme nu koy amee suba teel ci seen première chaîne de télévision à Kaolack namoon naa leen namoon nañu leen effectivement xam naa ne yéen ñu raw euh, ñu sommes mardi 27 euh, décembre n'est-ce pas c'est ça 27 décembre 2022 euh, ni ki démb nag man maa ngi woon temps yëpp maa ngi bokkoon Benno Bokk Yaakaar ndax férié bi nga xam ne saa waay làbbali nag il fait beau temps boo gisee gaañu nu mu soloo nii ngeen xam ne il fait beau temps Lamine bu baax la def Alsane Dóor en pull la li mooy wane ne climat yi naan am ak bu ñu am léegi c' est diamétralement opposé donc am na nu mbégte nuyu leen nuyu goo xam ne que mbégte la jóge suñu xol jëm ci seen biir xol et j' espère que ñëpp ñu ngi ci jàmm ñu dooree tey semaine bi euh, mardi 27 euh, décembre njiital réew mi Macky saal mi ngi ci diwaanu Tambacounda di fa amaluk ngan ñu naan ko tournée économique Euh, tur euh, tertu bu ñuy tertoo buur lañu ñu ko teeroo mbooloo mu takkoo takkoo takku ñoo tertu euh, président Macky Sall ci diwaanu Tambacounda ni démb leader bu passé Ousmane Sonko daal di xam ni ni fanweeri fan ak benn ci weerum décembre bu Macky Sall di janoo ak askan wi war leen wax bëgg-bëggam ak ta ay jéegoom bu ko seexee fan la ko war a teg ngir vingt 2023 Ousmane Sonko nii dañuy amal concert de casserole maanaam tëggi bool tëggi tam ndënd kenn ku ne daal noo ko sentiré ngir eh, yàqal ko li nga xam ne moom mooy discours à la nation eh, waaye tamit eh, biral na programme am fanweeri fan ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa PASTEF dinañ bokk ci marche bi nga xam ni que société civile war nañ ko amal ci réew mi juróom mi mbenn fan ci weerum janvier ñu amal beneen ndaje boo xam ne danañ wax Macky Sall out àndandoo ak yow ba tey tamit jàpp leen ni conserve de casserole boobu Serigne Abdou Bara Dolly nee na Ousmane Sonko loolu moom yëfu xale la nañ bàyyi yooyu te waxi kilifa ci noonu yi tamit ñaax na ne dér bu Pastef xale yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw réseaux sociaux yi di wax wax ju waxewul waaye ñuy jëf jëf ju jëfewul ñoo ñu bokkee ci Pastef Serigne Bara Dolly ni ngeen na ko bàyyi Aïssata Tall Sall daal di koy feelu gaa ñi dañu namu porté ku bëgg a moom demal nga foo mais ñi nga xam ne bëgg nañu déglu discours bi fanweeri fan ak benn ci weerum décembre nu ko déglu kon donc kàddu yi mi ngi mel ni tulleeg mali ci langue politique gi président Macky Sall ni ki démb nag dafa recevoir fa euh, ñaar fukk ak juróomi acteur yoo xam ne euh, ñu ngi ci euh, hip hop galsen ñu naan ko rappeurs yi loolu nag jur na waxtaan bu yaatoo yaatu ci penc bi clashante bi sax tam waroon ngeen a dem waru leen dem loo leen fa wuuti riifu bokkoon na ci ñi ci gën a ràññee ci diwaan bu Kaolack ah ak Fata ak yeneen ténor Mamy Victor yi moo fi teewaloon jigéen ñi dem nañu nag am na lu ñu waxante euh, ni ki tey itam jour euh, journaliste bi di Pape Alé waay nan ko waay dafa sonn sonn sonn ba yóbbu nañ ko ci ci l'hôpital ñu ngi ñaanal son excellence de président de la république gën wàkkirlu rikk waay mu teggi ko loxo ñu dellu si Kaolack nag Papi moom mooy mouvement réveil Kaolack nee na Pape bi tey euh, directeur général bu Senelec ak meeting bu coalition benn Bokk Yaakaar bi ñu amal samedi jeewees nee na gars yi dañ leen luye jëlee leen ay Latmingué ay Thiaré eh, dëkk boobu nu mu tuddati sax dëkk Aïssatou Ndiaye Jaafat foofu lañ jëlee gars yi sol leen si kaar andi leen ci stade Lamine Gueye nee na nag ñoom loolu dootuñ ko seetaan loolu lañu bëgg mu dakk jeex ci coalition benn Bokk Yaakaar te ñoom jël nañu relève bi commerçant yi nekkee ci marché central bu Kaolack bokkee ci beneen kuréel boo xam ne bokkul ak ànd taxawu marché central bu kaw Kaolack ñoom nee nañu Serigne Mboup jërëjëf li nga fi def li nga fi tàmbalee def juróom-ñeenti weer yi kenn defagu ko fi te ko comité de gestion bi nee nañ waaw te gars yi ànd taxawu marché central bëgg ne duñ dem ci commité de gestion bi ñoom ñoo ngi leen di xaar kunkande <laughs> affaire bu doy waar yow xaroo géej gi di dugg ci ay escroquerie benn waaye moo ko jox 7 millions pour mu defal ko ko 700 millions ci sunuy xaalis yaa dal xel kunkaane deful xaaj ba xaaj ba réen procureur bu Mbour teg na ko loxo <laughs> yàlla na nga fa yàgg kunkaane <laughs> al asan salaamaaleykum maaleykum salaam Babacar kunkaane day jaay doon loolu rek waaw waaw waaw fit la fit la fit la am <laughs> man yow xaroo géej gi looy defee sept millions sept cent millions mais nag bul fàtte moo ñu fi diggoon xar géej gi boole ci abnégation ak dévouement bu extrême donc tey bu xëyee ñu gis ko ci lii moom euh, je pense que waru bett kenn. <laughs> fit la bari booy bi. <laughs> mu ngi noonu Babacar euh, noonu la ñuy def nuyu ñi nga xam ne bokk nañ euh, plateau bi di am mbégte ak contentement aussi dellu si waat ak yéen namoon nañ leen depuis jeudi ñu denc actualité yi di leen xaar juste ah. pour waxtaanee ko ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ci àlla la ak lépp li nga xam ni jot naa xew fii ci diwaanu Kaolack. bari na ak mhm. muy jóg mbaalo bi commerçant yi. marché central <laughs> tey sëriñ sama gars yi. yéebe ne de comité de gestion bi daal dinaa di jox. ah comité de gestion. comité de gestion mooy lan gars yi ne. Mhm. déet sëriñ ne dee dina ko def. Mhm. loolu la ñuy xaar dëgg da ngay wow dëgër bopp yow su kay ñu namoon naa la. maa la raw Babacar. yow bëgg nga comité de ba ci kanam après lañ koy yaatal <laughs> asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi amati nañ mbégte contentement janoog yéen fii si seen émission match show ci Kaolack TV du nuy sama naataango yaa yi ma bokkal plateau du nuy suñu invité lamin tonto Lamine ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci invitation bi di wax gars yi rek ci kanam tuuti après ñu gën a yaatal dama koy denc ba ci kanam tuuti daat di leen koy wan yaama ñu ngi lay nuyu baa yeewu nga ci jàmm naka waa gox ba très bien bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi boo gisee tamit téléspectateur Kaolack TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ngeen dal jàmm seen biir émission match comme ni nga koy taamu di defee di lundi au jeudi Assane Soukay na di am mbégte contentement di bokk ak yéen plateau bi say su ne di nuyu suñu invité bi monsieur Lamine Dia. Mhm. Abacar. ci kanam tuuti dinañ waxtaanee marché central taxaw seetlu ginnaaw marché Medina Baye. dinañu delluwaat marché central bu Kaolack ak coow loona fa cobboy ñaari député yi di Mamadou Niang ak Massata sàmm ñoom itamit tey jii lañu war a xam seenu ëllëg ginnaaw procureur ba mu sàkk woon ñaari atu kaso ñu tëj leen ko ci affaire Amy Ndiaye ñii bi yaa ko mbéj yaa ko kuntaaba mhm. ba léegi loolu coow loolu jeexagul. Mhm. Alassane fu ñuy tàmbalee ak euh, bërëbu tasukaayu xabaar yi. Euh, bés bi lañ koy daal di tàmbalee bés bi la jour. aywa jox ñu yéene kaay bés bi la jour. bés bi la jour moom euh, dafa xëy tey fësal lii di waa Grande-Bretagne lu ñuy wax. xam nga Sénégal dañoo nekk ci jamono joo xam ni coow li dafay bëri ak lu ni mel yegg sax ba blanchiment de capitaux ak financement wàllum terrorisme ku dégg terrorisme fii ci diwaanu Afrique sa fit day dem loolu bokk na ci li tax waa Grande-Bretagne daal di tàmbale di andi ak njàqare ak tiit nekk jàpp ni Sénégal dafa nekk ci jamono ji ci risque bu mag a mag jëm ci wàllum euh, blanchiment de capital ak de capitaux ak lii di financement de terrorisme mu ngoog euh, bés bi le jour. moo xëy di lu ni mel bi sax jotoon naa yëkkati benn financement dugal ko ci lu ni mel ngir ñu mën a waajal li nga xam ni moom mooy wàllum terrorisme ak blanchiment de capitaux nguuru la moom it daal di taxaw def liggéey bu am solo ci lu ni mel teewul ba tey ñu féetee ci biti euh, di am ak njàqare ak tiit bu baax a baax a baax jëmale ko ci euh, Sénégal waral sax ñi nga xam ni waroon nañoo yëkkati kopp ko dugal ci réew mi tàmbali di daw ñi fi waroon a def ay financement tamit tàmbali ndànk-ndànk di daw wàllum blanchiment boobu sax la ñuy jaar dem ci libération fekk fa Kunkande comme ni nga ko waxee woon léegi Kunkande moom it euh, waa section de libération ñu ngi ko daal di fësal nataalu Kunkande libération nataalu Kunkande euh, section de recherche bu Thiès ñoo ko daal di fekk foofee ca Saly Euh, Koukandé lan la def Babacar dafa jël lu toll ci 7 million de francs CFA ñu jox ko ko mu ne da koy transformer def ko cent millions jot na caa sax lekk 4 millions. ay ci jamono joo xam ne gars yi ñu ngi waaru ñii naan. pour des comptes nii ñii métti Koukandé. mais nag Koukandé lan la la def Babacar. tas sama yaakaar gi mu tas yaakaar mu defaroon samay bagages ni dem tugal. <laughs> Badou. daal di daal di daal di waajal taxaw. pour def dara man wala pédale rek lay Ferran lay wuti France. mu ngi noonu enquête yene yi moom it euh, daal dina xey ba tey ci Kunkande dañuy dañuy daal di fàttali tamit Kunkande nekkoon en parfaite complicité ak ki di Ibrahima Niass euh, mom momé sax ñu koy wowe sant. mom tamit bokku na ki àndoon Kunkande bokku na ci ñi nga xamné ne àndoon Kunkande ci lu mboot ak alolu jambour nga ni dang koy yóbbu 700 millions mais lolu c'est ça relève de l'utopie hein. nga jël 7 ah millions yóbbu ko 700 millions man je pense que ni nit ñi ñoo bëgg xaalis quoi mais lolou tamit nit wi yëkëti xaalisam diko ci dugal Babacar ya certaines choses yoo xamni nit ki waru sax di euh, di di nangu di di di ko def enquête yene kay lañuy jall enquête yene kay yi xey di fessel ni li di euh, rapport Cour des comptes bi nga xamni dal di nañ ko génné ci jamono ji ni dafa melni sax lu jëm ci walum politique rapport Cour des comptes bi limu mu melni dañu bëgg duggal dugal politique ci bile mbir lu waral lu ni mel ki di euh, ministre biñ denk walum copar gi walum finance gi mom jàpp na ni amu dara dara dara lu lëndam ci bile xaalis te sax nit ñi ñoo bëgg a yëkkati coow li rek yóbbu ko ci benn niveau bi waaye boo xoolee kese pour cent lañ yóbbu ci xaalis bi nga xam ni mooy 1000 yu jugoon pour euh, wàllum euh, xeex mbas mi ak lu ni mel teewul ci pegg bi kii di Ousmane Sonko moom mu ngi xëy ci enquête yéenekaay yi ci suuf boo xoolee ligne ci suuf di xëy di annoncé lii di concert de casserole bi la concert de casserole sax la ñuy daal di continuer wax ji ak les échos yéenekaay yi les échos yéenekaay yi moom aussi mu ngi xëy di fësal ni euh, gannaaw sortie bi nga xam ni Ousmane Sonko daal dina ko amal euh, jot naa lim lu toll ci neuf maanaam juróom-ñeent ci ay député yoo xam ni. daal dinañ leen ministre euh, euh, yoo xam ni daal dinañu leen taxal moom Ousmane Sonko moom it ñu fàttali ni daal na programme ab concert casserole jamono bi nga xam ni ca la président war a yëkkati lii di kàddoom jëmale ko ci atub 2023 concert casserole boobee nag mooy ay casserole tëgg fii comme dañu ko tàmmale woon ñii yari cornet ñii di yëngal fële ku ne di def lu ko neex loolee ngir mën Euh, yàqal kii di le président de la république euh, li nga xam ni war na koo yëkkati di ay kaddu nga xam ni tàmmoon nañ ko chaque 31 décembre mu koy mu koy yëkkati gestion Covid 19 ba tey ak kii di Ousmane Sonko ci le témoin quotidien Sonko déterre la hache de guerre ci témoin quotidien ñu ne Sonko gannaaw gisoon nañ jamono ji ci ginnaaw xawoon naa def tekk tekkaaral waaye mu mel ni euh, hache bi nga xam ni moom lay xeexee moom la daal di dem sulli ji lu waral lu ni mel mooy annoncé na fi ay ay. casserole naka noonu le 31 décembre la ñuy am concert casserole bi rassemblement 6 janvier 30 euh, décembre tamit moom moomee nee na dina daal di fekk ji euh, ñii di euh, askan wi nga xam ni war nañoo génn jàkkaarloog bi le bi nguur moom moo boo société civile le 30 le 31 mom tamit mu guen mu ne day def concert casserole mu melni ni euh, di wa témoin quotidien li ñu dë li ñu wax deuguna lool parce que génnee na as de guérigal dañuy d'aldi jall ak l'observateur l'observateur mom mu ngi xey feussel natalu le président de la république mom momé sax daal di nekkoon fële ca euh, Tambacounda bile bile bile bile accueil nak ci biir tambakunda nekk lu extraordinaire bo xolé nombre de personnes yoo fa nekk ak lu ñu mel waral sax lolu loolu yëkkati ak contentement ci le président de la république ba mune dina yëkkati l'observateur la ba mune dina yëkkati lu toll ci 248 millions de francs CFA pour euh, def ko ay investissement ngir mën a def face à déception bi nga xamné acteurs yi amoon nañ ko fofu lolu euh, bi les 248 millions Ça day dugg ci walum santé éducation terrorisme tourisme moi avec euh, artisanat ak emploi artisanat boobu sax melni lu xaw souxé Sénégal wayé bi le tourner ak cadeau yu lum yor yor yene yi dafa xey melni ku tàggatoo tour maanaam jàpp na ni bi président de la république ci yor yoor yéenekaay yi jàpp na ni bi le président de la république di Macky Sall moom bi le tàggatoo mu amale fële ca Tambacounda bi le tour mu amal fële ca Tambacounda ñu jublu ko ci wàllum économie ak lu ni mel moom tàggatoo tour la ko tuddee moom daal jàpp na ni nguurug Macky fii lay yem comme ñenn ñu bari lu ñu ko bëggee ba tey dañuy delluwaat ci bés bi yéenekaay yi ak taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang ñu am lu ñu lu ñu lu ñu métti lool ci euh, jafe-jafe yi nga xamni ni euh actuellement pap ali nya mu ngui dundu ci ci ca ca fële ba yegg sax ba ñu ba topal di continuer li nga xamni ni grève de la faim bi nga xamni ni mu ngi ko don def lolé sax yobbo ko jamono ji ñu toll mu nekk eh, fele ci hôpital principal ngir ñu xol saytu yaramam lu ni mel nag moy eh, xey dal ni du lek du nan grève de la faim comme nim ko tamé won ngir mëna woné wone ak li nga xamni ni nako lol di eh, li di ngourum Senegal ni ñi doxé la tribune lañuy juggé ak Aïssatou Tall Aïssatou Tall Sall mom momé sax xëy di ni politiquement ak moralement naka non Macky Sall warul sax meuna a présenté wu ci euh, troisième mandat bini ni ni ñu ñu ñi naan troisième mandat ñi naan deuxième mandat selon Aïssa Tall Sall le président de la République warul présenté wu politiquement ni moralement mm-hmm. waaye euh, ci soufi kadom ñu fatali ni momit it Aïssatou Tall Tall mu ngi léral ni constitution bi permettre na Macky Sall mu présenté wu. très bien mais ak lu ci mënta am moom moomee warul présenté wu dañ koy daal di tëj ak euh, stade stade yenekaay yi moom mi xëy di fàttali ni Sadio Mané def na ci infirmerie ba jamono ji cinquante jours li jëm ci wàllum carrière mel ni lu xaw a tiital ñenn ñoo xam ne ñooy ay fansam waaye teewut jàpp nañ ni lii di euh, mois de. février ci digg bi amaana dinañ gisaat sunu ñancoo boobu comme li ko le président de la république tuddee wàllu sunu làmb sunu làmb ku ne Sénégal wax lamb waa ji nag ci jàkkaarloo bi nga xam ni sunu lamb ci jàkkaarloo bi nga xam ni moom moo doon tëj ca Alassane Djigo la ko Boy Niang doon defee xëy na di fësal na waa ji jël sama bakkan wala ma jël bosam. jërëjëf ñu lay gërëm bu baax Alassane Ba ci. ëttu yëglekaay yi lañu xëy fësal ci seen xët bu njëkk à la une leen jàngal doonu baaxoo ko di def chaque moment dañu leen di jox xibaar yi nga xam ne moo gën a wér te wóor ak bërëbu tasukabaay xaayu xibaar yi waaye tamit Kaolack dans sa globalité ak nanu yeewoo comme tey dañu am euh, contrainte temps dañuy dem directement dalal suñu gan Eh, bi nga xamé ni ke ci suba tay tay mom lañu wara dalal wara a lepp lo xamné aduna ci marché central bu Kaolack ak ni nga xamé ni ke mom lañu ko yoré ak bëgg-bëggu maire bi bees bi nim mu da fay def comité de gestion. Mm-hmm. journa na jiixi jaaxa ëlëm na ñu bari ci askan bi Lamine Ndaw lay wuyoo mom moy secrétaire chargé de l'information collectif and taxawu marché Lamine ñu ngi lay nuyu te dila dal jamm ci plateau bi. waaw jërëjëf Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax dila ziar ziyaara di leen ndokkeel baax di nuyu wa Kaolack TV Lamine Diala. Lamine ah, Ndaw mooy suñu président Diaw merci Ndaw ko yàlla bu ma ko sant Ndaw moom mi ngi noonu ah, di la nuyu bu baax di ziare wa Kaolack TV yëpp macha allah di ñaan ah, barab bi ñu ñëw yàlla def fi barke ba ubbi ko may leen lu ëpp seen njort macha allah mm-hmm. initiative bu am solo la te yéen liggéey lu am solo si gox bi mm. parce que yéen a ngi xëy di lijjanti problème yi te problème yooyu bu ngeen ko waxee rek yaakaar naa ne saafara da siy faral di am kon nag yéen sookal ngeen boo da ngeen am solo si réew mi Euh, réew mi yëpp soxla leen surtout nag ngeen nekk ay ndaw ndaw yoo xamante ni xëy di xool li nga xamante ni mooy doxal gox bi si Saalum kon amee nañ leen njukkal. waa di leen sant bu baax ñu ngi fi teew nag si turu euh, collectif ànd taxawu marché central Kaolack ak groupe délégué sectoriel yi nga xamante ni euh, ñoom lañ éliroon jamono yële ñu génn. liñ si nekk liñ fi teewee nag mooy waxtaan li jëm si wiiru marché central Kaolack ndax dañ ne collectif ànd taxawu marché central Kaolack c'est pas des commercant ay artisan ak képp koo xamante ni am nga table ci marché bi rek kooku collectif bi concerné na la moo tax ñun ñu teewal leen fi seen kàddu ñu nuyu waa marché yëpp di leen nuyu bu baax jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ñu dooree waxtaan wi ak euh, coow li nga xam ne judd na ci marché central bu Kaolack mhm. laataan ñu tey agsi ak coow li lan moom moo ko waral mhm. collectif ànd taxawu marché central bu Kaolack kañ la judd waaw collectif ànd taxawu marché central Kaolack euh, mi ngi judd si 2020 bi si la judd Euh, li ko jur li ko li ko li ko indi nag mooy euh, dañoo toogoon sa seet na ne marché dafa amoon problème représentativité ñi leen di représenté ci côté marché bi. Mm-hmm. yàlla daf am na ay événement yu fi génn ñu gis ay secteur bu nekk ñu gis fa ay ndaw yu fa taxaw taxawee ko. bi ma leen si jox rek mooy après lakk mbaari fëgg jaay ñun ñi ñoo bokkoon dañoo créé woon benn comité comité boo xamante ni xëy na boobu délégué amatu fi woon parce que ñëpp xam nañ ne délégué marché euh, kooku dafa ba léegi xamul fu mu nekk. Mm-hmm. ki fi nekkoon di ko assuré bi feebaroon yàlla def na mu juge fi euh, marché bi nag dafa manqué ñoo xamante ni ñoo koy représenté euh, ñu ne léegi ñun ñëpp suñ xel dafa dem. ñu xool ñu ne léegi da war nañ taxawal dara. premier combat bi ko juddu sax mooy euh, dañoo boobu dañoo amoon benn problème mooy diggante korité ak tabaski dañ daan gis monsieur le maire Serigne Mboup di fa organiser benn foire te marché central Kaolack amul lu dul Kaolack amul lu dul marché bi. commerçant yi amul lu dul événement yooyu parce que boo gisee am na ñoo xamante ne sax bu ñu dikkee bi Korité waaj ñëw la ñuy ñëw investir bu tabaski jàllee dañuy dem nekkaat si yenn activité ñu dugal fa benn ñu fay dugal benn foire ñu ne lii kat warta warta jàll war nañ koo mën a wax beneen bi mooy bu ñu jubee événement dañ daan gis municipalité bi di dagg tëli bi di ko jaay ay place ay 3000 3000 di ko encaissé euh, ñu ne lii tamit na si dañ ñu dem seeti Mariama Sarr mu nekk maire de Kaolack. mu nekkoon maire de Kaolack mu nekkoon maire de Kaolack waaw. bi ñu demee ñu soumettre ko ko mu ne man de lii mosuma xam ne sax mi ngi am bu soobee yàlla dañ na bis ni ki tey euh, si la dikkee yebal gaa yi ñu def fa dégager voies yi ñoom jàll. ñu keneen ki ñu war a seeti mooy ki nga xamante ne mooy borom foire bi mooy sëriñ bu boobu président chambre de commerce la nekk ñu fekk ko la chambre de commerce waxtaan ak moom mu ne waaw bu soobee yàlla du fi am danañ ko dàq rapporté ko si loolu nag bi ñu jugeen bi ñu dikkee nag. Euh, ñu ne nag nañ wër nag ñi nga xamante ni ñooy représenté marché bi ñu créé benn association créé collectif ànd taxawu marché bi bu ñu wax collectif du collectif commerçant du collectif artisan kon nañ nañ wax ànd taxawu marché rek nga xam ne képp ku yëngu marché ki si mën a bokk mooy ki nekk marché am fa place ak ki nga xamante ni nekkul marché te am na place ci marché bi mhm. parce que kooku waa parce que suñ carte membre daal lañ dëkkoon di jaay ñu ngi si 502 carte membre lañ mujjee jaay mhm. waaw pour l'instant jamono jamono nag mu ngi dox la mi mhm. euh, ginnaaw juddu gi mhm. jógewul bi ci mhm. euh, ayu Mariama Sarr ci boobu juddoo ak ak xeex ak ak euh, ah, bi pas commerçant parce que boo dee commerçant a waaye tey jamono dox ba mu bëgg a gën a yaatu ñu ciy dégg comité de section lu ko andi ak loolu bëgg-bëggu la non loolu maintenant loolu jaxas la boo xamante ni dafa am parce que li waral jaxas bi mooy bii monsieur le maire toogee xëy na euh, moom xëy na dañ ne dañ doon làmbatu xaw ma li ñuy wax tâtonnement la doon def parce que bi mu toogee rek dafa dikk xam ne ne marché moom pour pour mu économique ku Kaolack municipalité bi li muy jëlee fi muy li muy jëli si ressource bu ñu ko waxee tey daanaka marché la ñu koy jëlee parce que marché moo fi daanaka moo fi benn industrie bu nekk Kaolack Sine Saloum léegi euh, xam fekku fi délégué léegi moom dafa def benn création def benn génne woon benn feuille feuille de cinquante personnes léegi dem dem jëli liste bi nga xamante ni na Diouf moo ko fi bàyyi woon mu nekk ancien délégué mu jël fa ñu si bëri ñu dee ñi ñu bëri dee nañ te ñoom ku si ku si gaañu rek dañuy woo kenn dem ñu remplacer ko bind ko për big ñun bi ñu góonee sax ay big lañ leen defee te ñooñu représenté wuñ marché bi noonu lañ ko noonu lañ ko teew moom lañ leen fekk liste bi commission président hall commission hall au marché xam nga marché kaw marché ak maire yi hall au marché lañ xamoon moo koy gérer Pa Ousmane Diouf moo fa nekkoon moo fa nekk ba li Mariama ba ba li monsieur Serigne Boub di ñëw carré nommé Mbacke Thiam léegi bi mu defee loolu Mbacke Thiam bi ñu jëlee bi ñu ko joxee list boobu mu dikk ñooña mu tànn ku nekk mu jox la benn feuille na la dugal ci marché bi boo demee secteur ba nga nekk nga wut 50 euh, signature boo dikkee ñu wax ne yow mi yaay représenté marché bi ñun bi ñu jug bi ñu yëgee loolu fekk na ñun ñu ngi si biir marché bi nekk si te ñi ñuy wax ñoo ñuy représenté ñu si bëri sax nekkatuñ si nekkuñ sax si marché bi wala ñeneen ñi bu ñu nekkee marché bi amuñ fa benn représentativité ñu ne loolu du loolu xamante ne dafay nekk léegi li ñuy def mooy nañ leen organiser délégué secteur délégué élection délégué sectoriel maanaam élection délégué secteur bu nekk nañ ko organiser ay délégué am organiser élection def délé def délégué bi ñu présenté loolu dem si Mbacke Thiam wax ko ne ko nag am nañu élection délégué sectoriale yi ñuy organiser invité nañu leen yéen maire ngeen ñëw superviser xool élection bi dañuy digg na képp ku bëgg a doon candidat ñu ne man candidat laa bëgg doon ñu ne la léegi ay ay ay carte lay doon carte bi ñu ne la ver bu la orange nangam tànnal benn nga ne bii laa tànn ñu dagg sa ruban jox la ne la nag wëral sa secteur nga ne leen nag bu ngeen di wootee ngeen wooteel ma ci lii ñu woote wut suñu isoloir def élection waa marché bi yëpp fëgg jaay lañ ko démarré fëgg jaay 320 personnes ñoo voté Pablo remporté ko ak presque cent 190 xaw ma 200 presque. Mhm. Euh, su ko defee mu remporté ko ki ci topp topp ca ñu topp ko nag par secteur par secteur ba mu jeex bi ñu demee ba ci biir. municipalité bi taxaw nañ ba pare affaire bi xaw leen a déranger parce que xam ne ne li ñu doon def jaaduwul ñu ne ñu leen arrêté élection yi ñu leen ñun suñu élection marché bi dañoo bëgg ku nekk secteur boo taxawee ëllëg na may waxal place barab sàngam ñu xam ne ña fa nekk ñoo la ne yow yaa ñu doy yaa ñu ñoo la jiital ñu continuer loolu bi ñu paree nag ñu ne dañuy def élection délégué principal léegi élection délégué principal maire bi bi mu ñëwee euh, pour des raisons politiques am na ñu mu fa soupçonné suñu président xëy na bi muy campagne ànd ak moom mais collectif bi dañ see interdit politique mais ku si nekk am nga droit. far fa la neex waaw parce que. ku nekk am na droit far fa la neex léegi nag mu am ak moom ay ko ko ay ay ay ay ay ay contrat yu mu ko war a def ak moom si diggante ak ñoom moom mu ne léegi délégué yi fa nekkoon laay reconnaître ñu ne ko délégué dafay nekkut bañ def si benn émission sax ba olo marché wax na ñun reconnaître un benn délégué marché ñoom ñooy tànnal seen bopp délégué ñu demaat ba ci biir mu dikk indil ñu proposition benn cahier de charge tey bi ma lay wax nii benn cahier de charge la def mu ngi def invitation bi gis nga. Euh, Euh, mi ngi euh, invitation bi mi ngi ko def le euh, le 3 novembre. wa waaw ordre du jour bi la lay wax rek validation du cahier de charges de processus électoral du délégué du marché de Kaolack mise en place d'un comité électoral question d'hiver dafa créer ben cahier cahier de charge bo xamanteni légui léegi nañ def ba marché bi comme ñun niñ defone mëna ñu nañu yéen li ngeen defoon comme poké wu ma ko woon kon da ngeen may may ma bok ci bi pa ñu ne ko d'accord ñun niñ defone dañ ko bàyyi nga ñëw nga superviser waat ñun xam nañ ne fu ñu jaaroon bu ñu fa jaaraatee ñun ñooy gañewaat léegi mu ne léegi tegal naa leen benn cahier de charge ni ngeen ñëw réunion gis nga membre ku nekk ku ku ku moroom mu nekk na nga indi trois personnes. cahier de charge élection des délégués. délégués du marché du marché. léegi moom moo ñu ko wax de proposé ko. na maa ngi tukki nag bi yéen a ko jàpp ñetti fan ci yorum novembre. novembre waaw mu ne boobu après sëriñ mu ne damay tukki. Hmm. su ma voyagé nag su ma ñëwee daa fekk mu pare élection yëpp pare ma xam ñen ñoo jiite marché bi mu mën a liggéey ak ñoom ñu déposé ñu ne à partir de lundi 7 fév 7 7 novembre nañ déposé ñi nga xam ku nekk ku nekk ku nekk groupe bu nekk na nga joxe ñaari membre yoo xamante ni ñooy lay représenté ci comité électoral bi ñu joxe ñaari membre yi gis nga ko nii. moom lañ ko defee ñu ngi ko déposé la 7 ah bi ñu déposé ñaari membre yi parce que comité électoral bi ñoom ñoo war a toog li amutoon ci marché bi créer benn pacte boo. xamante ne dañ koy def benn par benn. pour nit ñi mën waaw

ah secteur bu nekk secteur bu nekk ku fa war a wote nii la ak ki war a nekk candidat ñu ne leen d'accord léegi ñu ne comité électoral bii ñu indiwaat nag ñoom ñooy toog nag tënk règle yi léegi ñoom dañuy ñooy comité électoral boobu bu ñu dikkee ci secteur mbaa dafa gi dafay am kuy ànd ak ñoom bu ànd ak ñoom bu dikkee taxaw ñu recensé ña fa nekk nekk ca biir marché ba bu ñu paree ñoom ñu indi seeni seeni isoloir benn ñu wotee carte ñu waree wotee carte abonnement ñoo leen carte abonnement am ñoo xam ne place yi ñu yore nekkuñu ab yoruñu abonnement yi ne ñoom mën nañ leen a defaral sax euh, la chambre de commerce mën na mën na confectionner ay carte yoo xamante ne dañ koy voté ci secteur yi. boobu yéen ñëpp d'accord ñu d'accord dem ñun ñi fa toogoon. Mhm. d'accord nañ ne dem élection mais ñeneen yeneen secteur bi ñu di bi ñu dikkee ñoom bi bi ñu koy tenir ñoom yeneen association yi xam ne soo sont bi ñu dikkee dañ ne ñun bëgguñu élection. kii lañ comité de session lañ bëgg Moussa Fadji secrétaire g secrétaire bu maire yi hmm. mi ngi woon ci réunion bi moo leen yéen xamu leen li xew ndaxte comité de session mun ta am tant que élection délégué principal amut. parce que mun ne leen. Ah, kooku def proposition boobu fan la bokk. kooku def proposition. ci ci ci ci ne nañu def comité de section fu mu bokk. comité de session. Hmm. mooy mais mooy mooy groupe yi nga xamante ni mooy yeneen association yi mooy groupe Benno. ak groupe bu ak ñeneen ñi nga xamantene ne te groupe Benno sax daanaka ñoo ko fa waxoon lolu kooku bokul ci taxaw and taxaw marché. non non bokkul ci and taxaw marché. légui benen kuréel dal la benen kuréel la. Mm-hmm. légui bi waxé lolu euh secrétaire général secrétaire général ne leen. Mm-hmm. yéen xamu leen li xew parce que comité de session mënuñ ko monter ta élection délégué principal délégué marché yi mënuñ ko def ndax mu ne bu monter comité de gestion. bu ñu bëggee tànn représentant commerçant yi si ban base lañ koy tànnee. très bien mm-hmm. euh, ma def précision foofu parce que dafa am ñuy seetaan bëgg a comprendre. waaw délégué principal yi. Mhm. moom mooy nekk. délégué sectoriel chef bu. Mhm. mboolem délégué sectoriel yi nga xam ne ñoom mbaaru Fugu Jaay mbaaru Cere mbaaru Garaana ñun ñëpp dañuy am délégué. waaye délégué principal bi mooy nekk seen kilifa. Mhm. ci élection boobu ngeen bëggoon dem. te Serigne Mboup ne waaw. d' accord moo ñu ko posé. léegi nag mu ne waaw d' accord na. ba li am am. mu bañ ko lu tax mu bañ ko ndax wax na ne nan moo tax mu bañ waaw effectivement moom sax avoué na ko parce que bi mu dikkee bi mu ñibbisee. biñ jox naa la beneen fooy bu ñu déposé. waaw jox nga ñu mm-hmm. la may woon. waaw Mamadou comme comme Matar Diaw Mamadou Dia mooy man. Ah, ak ak man maa leen représenté ak Mayoro Ndiaye ñun ñun ñu ñu représenté ñun si élection ñun duñ du doon ay délégué parce que bëgguñ délégué bi nga xam day am concurrence mu mën ñoo représenté si comité électoral bi parce que boobaa day am conflit d'intérêt si biiram mm-hmm. moo tax ñun ñi nga xamante ni nekkuñ ay délégué mais ñi ngi si biir joxe ñaari tur yooyu pour Matar Diaw la ko bàyyeegoo nag ak Aline Diouf bi mu ko bàyyee Aline Diouf ñu dem si Aline Diouf ak Matar Diaw déposé Matar Diaw defal ñu li accusé de réception. dafa dafa amoon délai xam nga tey bu ñu ne la candidat pré élection présidentielle tey la dépôt de liste yi. à tey ku déposé wut. Mhm. bokkoo ñun rek ñoo déposé. bi ñu toogee diir ñu dem si Matar seeti ko na ko Matar. yéen ànd taxaw ñun kese. waaw day leeral waaw. ànd taxaw rek ñoo déposé. seen seen liste moo nekk noonu. ñu mu nekk noonu ànd taxaw kese yéen déposé ñoo déposé ci waxtu ba ba mu si waxtu ba keneen déposé wut. ci procédure boobu. procédure bi pour di ci dem délégué. principal principal waaw waaw eh, léegi nag bi ñu déposé loolu ah, sëriñ bi mu ñibbisee laajte bi mu dëkkee bi mu dajalee ak kiyam laajte ñu ne ko ne leen fu affaire yi eh, yi toll si marché bi mm-hmm. Matar jow dégg naa moo ne ko

mu mu werante seeg ñoom ne loolu comité de gestion dafa war a am que collection délégué bi dafa war am ñu werante seeg ñoo ko defuñ ko parce que bu ñu ko defee automatiquement ànd taxaw marché bi dañuy gagné élection délégué principal te ñoom ñoo koy yore automatiquement loolu tax ma ne day créer comité de gestion pour bañ ànd taxawu téye ko léegi bu jëlee juróom-ñetti association ku nekk mu laaj fa ñaari nit ànd taxaw marché bi ñaar rek la fay am te ñi juróom-benn yépp si moom lañ nekk. daanaka ñu si bëri moo leen kare moo leen yore bu boobaa antaxaw taxaw bu fa daree dafay figuré wu. kon loolu moom moo. ok moom moo moo gàntal. loolu moo gàntal mbir élection élection délégué principal. lan est ce que est ce que est ce que mën naa xam lan moo waral exactement. Mhm. ñu bañ mhm. yéen ngeen gagné. ah merci beaucoup ah. lan moo waral ngeen gàntal. lan la ndax dafa rax politique ci biir wala parce que su ma déggoo ay kàddoom sànq. mu ngi mu ngi leeral ni ñeneen ñi féetee feneen. Mhm. dañuy dañuy comme li nga wax léegi. boo jegee buur moom bu lekkee ndawal nga seeñu nga seeñu ndawal la. waaw euh, ndax dafa rax politique wala. waaw xam nga bañ bañ ñi tax ñiy gagné mooy am koo xamante ni dalay si sa si sa si sa part monsieur le maire dafa am lo xamante ni daf ko daf ko daf ko gëm di ko doxee mu mm-hmm. dafay am koo xamante moom bu sañoon ñi muy ànd ak ñëpp danaan waaw rek ñu ne waaw te ñun liggéeyuñ noonu ñun da ngay teg sur principe nga wax ne lii laa bëgg bu nekkee lu arrangé wul marché bi ñu ne la lii arrangé wul marché bi. voilà léegi nag léegi nag Lamine. waaw balaa ñuy bañ a réeroo. Mm-hmm. léegi mm-hmm. Euh, ndax yéen. bi ngeen demee ba dem bëgg a dem ci procédure élection délégué principal. waaw bind ngeen yëglu ci mairie bi ne. ñun déposé na bu defal leen accusé de réception ndax loolu jot def. moom la mooy accusé de réception bii la jox nii. bii lañ ñu jox ñoom ñoo ñu ko jox. ok bii mooy wane ni yéen yéen yéen yéen cundul yéen déposé. waaw bii mooy wane ni Babacar. day mel ne candidature signature collectif fu ànd taxawu marché. waaw voilà mu ngi noonu. accusé de réception dafa waroon am signature. mairie kaw non ñun lañ ko jox. ok moom moo jiite comité électoral moom la ko dénk. moom la ko dénk waaw. moom moo ñu ko jox léegi moom bu ñu demee ba wax leen ne lii la ñu war a décider léegi dem na ba si biir parce que xam ñun ñun li defoon xam ne ne jaar na yoon te dañ see sonn liggéey ko mu dikk na da koy organiser xam nga lu ñu doon bañ ku nekk taxaw rek na maa jiite fii maa jiite fii. te loolu du ko jàppale. bu organiser élection délégué sectorielle délégué bu nekk mu am ko fa jiite moom mu superviser ko moom ñun ñu bàyyi lañ defoon ñu superviser ko ñu fa jiite waat bu ëllëgee si marché bi day am temps libre mais da ngay xool benn nit xamante nii tey tey tey benn nit bu wax si rajo bi. kooku bi ñu demee mbaar fëgg jaay mu ñëw ne damay bokk élection ñu ne ko bokk yow nekkatoo fi benn place amatoo fi bokk ñu ne ko bokkal bi ñu demee vote benn benn voix la am moo ko woteel boppam. tey mi ngi xëy si rajo bi di wax. naan dañuy porte plainte ah benn voix moom kan la ci gaañu xaadim jong te euh, benn voix te moom moo ko may bopp moo moo ko woteel boppam. yow ñi ngi yow ñi nga xamante ni yaa ngay représenté parce que dafa am gis na li ñuy wax ne ñàkk du réer borom dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk si marché bi xëy na ay ndaw lañ nag waaye nag dañoo nekk si marché bi am fa taxawaay te am loo xam dañ koo jomb. bu duñ ay postu bëgguñ xaalisu kenn soxlawuñ dërëmu kenn li ñu amal solo mooy xam liñ bëgg képp ku ñëw li si jàpp ñu taxawal jàppale la si. Mariama Sarr bi ñu ko waxee mu ne nu ngeen tudd ñu ne collectif ànd taxaw marché mu man tamit danaa wut danaa créer collectif aar sama marché parce que boobu gars yi gëmloo woon nañ ko même groupe rek gëmloo woon nañ ko ne ko ñii gars yi sëriñ buub lañ yow la ñuy xeex. ca boobu jamono ca boobu jamono. Oh. te boo weddee li ñu lay wax am na ñu jël dikk euh, photo rii sëriñ bu abi staff boo photo photo yooyu yut ko ko na ko gisoo rii bi sëriñ boobu lañ ko tuddee rii bi Ousmane Noël Dieng ah ñii ñoo fi nekk gis nga ñii ñoom ñoo lee la ñuy xeex. waaw kilifa bu ma waxtaan tey de ma dey na ko sax. waaw bàyyi ma. <laughs> Mm. ak Mariama Sarr moo leen dal. waaw loo ko. non ah, waaw non amaluñ amaluñu àq sax cest moom. Mm. Euh, bi bis bi mu yëgee yëgee suñu revendication ba woo ñu moom bi mu ñu dajeeg ñun ah, yaakaar naa ne lañ doon sàkkoon teg si diggante ak moom ah, sottil na ko ndaxte sur boobu sax daf ñu woo këram la ñu woo ñu ne ñun collectif en taxawu marché bi duñ wuy wuñ Mariama Sarr bu koy fekki këram. ministre ah, ah ki ah, ki nga administration ki nga xamante ne moo nekk eh, di di liggéey ki turu maire bi lañuy lañuy la ñuy jëflanteeg mais pas Mariama Sarr parce que boo demee këram ñu ne la da nga koy wuyu politiquement wala nangam nangam dañ ngeen koo seeti nangam ñu ne mais moom bi mu mu jot ñu ne ñu eh, man bi may jot na yéen yéen a ngi def sorti boobu maa ngi waaj takk samay bagage te heure de travail weesu na te heure de travail weesu na te may dellu dakaar te yéen a ngi def seen i revendication te kon digeen mën na nekk digeen ngeen dik sama chamin ak ak ak sama chamin ak seen jigéen bu ngeen ma soxla woon kenn si yéen am benn problème mën naa leen fekki mo te 18 heures jot na boo tax kon ngeen ñëw fekki ma fii ñu waxtaan loolu du doon benn problème si lañ ko fekkee sëriñ buub tamit la même chose koor lañ ko fekk euh, weer de koor ñu fekk ko këram waxtaan ak moom wax ak ko chemin bi nga xamante ne lañ teg mu ne waaw danaa liggéey ak yéen waaye nañ la ñuy liggéey élection yi moom na ngeen taxaw xaar ndax man maa ngi campagne ñu ne ko waa comme yaa ngi campagne garaawut saa yoo paree ñun ñu dem si élection yi ñu bàyyi ko mu proposé lii ñu nangu ko dañoo xëyaat jotaat lii bi ñu jotaatee lii nag. loolu moom mooy bi le 15 novembre le 15 euh, décembre. Hmm. ñu xëy xëy rek ñu yónnee ñu lii ñu ne léegi dañuy créer benn benn benn comité de gestion suñ ko créer ba pare comité de gestion bi ñuy créer pour mu jug si jafe-jafey marché bi la ba pare préparer waaj. élection délégué principal. maanaam kon. ñoo état yi léegi élection yi ngeen jëmoon moom naxasal nañ ko kon tégué côté. de. mom non la mom. li li li mairie bu Kaolack mënoon ko bind. Maire bu Kaolack. adressé len ko. Wa. jagleel la ko yow mi waaw monsieur Lamine Nous monsieur Lamine Ndao mooy le président mooy le président waaw président collectif And Taxawu Matam Central Kaolack. Mm-hmm. li ci nek moy suite à nos différentes rencontres. Mm-hmm. sur la situation du marché. Mm-hmm. et après constat de l'ensemble des problèmes qui ont été d'abord partis partie décelés. Euh j'ai décidé de mettre en place. mais bëgg dina def def waaw fas naa yéene taxawal waaw fas naa yéene taxawal. Mhm. Mhm. comité de gestion. Mhm. composé. ñaka wara war a composé. fas naa yene taxawal ab comité de gestion ñi moy lim nii ñoo ko war a taxawal. merci beaucoup te ñata wara taxawé dinañ bok ci ñi bawoo ci marché waaw lool la wax. Lagi bisa tax buka bëgg a ak procédure nak annulé na bu pare délégué principal. Yen laataa ñu ñëw ci comité de section da ngeen def élection délégué principal wala bàyyi ngeen ko ci suuf. non ñun ngi si élection délégué principal incha allah le 29 lañ koy def ak conseil départemental daanaka si loolu lañ nekk fan yëpp di si liggéey ndaxte li yàlla di wax rek waxaasa an tuhibbu shay'an wa xayrun lakum waxaasa an tukrihu shay'an wa sharrun lakum. ba pare laxati ko sëriñ bu dañoo sëriñ bu dañoo léeg-léeg nga bëgg dara fekk dara ji gënut si yow léeg-léeg nga bañ dara fekk dara ji moo gën si yow. Hmm. moom bu déggee ay alxuraan yi dana ko xam. ndaxte ñun dañoo liggéey ñaq wàcc ci terrain bi bàyyi suñuy liggéey activité secteur bu nekk ñu taxawal fa ñu élec ñu def élection mu ñëw ne d'accord d'accord teg leen ko ma ànd ak yéen ñu def beneen système ñu d'accordal ko mu dem ba ci biir mu génnaat ca ba mu ca génnaatee nag ñun fañ de fañ yemoon la ñuy continuer def su ñaq woowu du réer dañ koy àggali. Mm-hmm. waaw dañ koy àggali ndaxte lii mu wax nii comité de gestion déjà gis nga yow comité de gestion ah maire mën na ko am. surtout marché central ñoom nii moom day jaawale marché géej ak marché central Kaolack marché géej direction la. am frigo loo xamante ni day génne ay recette te am na ay délégué moom comité de gestion mën naa am. marché géej. du am benn problème kon da ngeen def délégué. élection délégué principal. waaw mais Babacar waaw moom laa lay wax ba comité de gestion. Hmm. comité de gestion ma mairie en temps normal.

lettre bi mu ci ne mu ne. Euh. di bëgg fas naa yéene def comité de gestion te comité de gestion boobu may def. Mhm. acteurs yi liggéey ci marché central Kaolack. Mhm. ñoo ciy bokk. Mhm. léegi comité de gestion bii mu bëgg def. yéen ban taxawaay noo leen ko gisee njëkk. waaw comité de gestion bi ma la wax moom laa lay wax gis nga comité de gestion. Ah, surtout marché central Kaolack. comité de gestion marché waa marché ñoo ko war a proposer maire bi bu ñu ko proposer bi c'est pas maire moo koy proposer waa marché. an ko bu en ah, conseil municipal bi ñoom ñoo koy validé bu ñu ko validé léegi nag comité de boobu bu ñu ko éliré comité de bi mun naa ñëw ne waa mairie day man day électrification mën naa see jël lii courant bi mën naa si jël lii nettoiement bi mën naa see jël lii di ko ab par rapport mu ne nettoiement bi 10 000 francs maire ne ah man de awma 10 000 am naa 8 000 léegi loolu mu génn ko si biir si li nga xamante ni mooy génn si mbiru marché bi mbiru marché bi si néew jox leen ko su boobaa waa marché ñoom ñooy gérer. seen autonomie bopp ñooy gérer seen marché léegi moom au contraire bi la def contraire bi mu def mooy da ko walbati moom mu ne da koy proposé ba pare na yéen jox leen ñu ay éléments ku nekk deux éléments. mais boo xoolee boo xoolee tubaab bi mu bind. waaw nekkul sax proposition. waaw fas naa yéen sax waaw kay moom waxul sax loolu. day moom dana fas naa def léegi nee na da ngeen ma jox deux éléments. léegi deux éléments ñi nekk si marché laaju leen seen xalaat. waaw kay maanaam nekkul laaj. nekkul kaay ñu waxtaanee ko. waaw kay naa yéene. waa nga tey Babacar ma ñëw ne la. Euh, sa sa gis-gis. ci nangam bi leer na mais boo bu ma ñëwee ne la fas naa yéene andil la nag. ah, ah non waxuma imposé la ni mu commencé sax mooy après concertation. si marché bi ne bi waxtaanee ñu waxtaanee. taxawal bi mu ñibbisee moom li ma la wax nii mu def ko si ay éléments bi mu ñibbisee. Hmm. mais même au marché la daje. nee na décidé na. même bi décidé na. waaw décidé na taxaw ngir. parce que dañu suite à nos différentes gannaaw bu ñu amalee ay temps ay dajee lu bari. Euh. jëf asat euh. ci wolof. Euh. tojal bu ne parce que marché yi dañu bari. suite à nos différentes rencontres sur la situation du marché central. gannaaw bu ñu amalee ay.

bu plan bi di am changement da nga leen di woote woo réunion moom nee na damaa juum nee na conseil municipal wax na ko al alfayda rajo bu ngeen ma ngeen baal ma tudd ko wax na ko barki démb mu nee ne damaa juum ndax sama samay conseil municipal ñoo am dëgg lii ma doon dem ak ñoom damaa juum ndax man loo ñoom ñoo am dëgg waaw mais boo juumee wóol nit ñi nga leen damaa juum te yow bu ñu la tegee ne kilifa bu juumee de yóbbaale lu bëri de mm-hmm. kilifa dafa war a moytu balaa juum dafa ko war a dafa war a moytu xëy na juum warut kenn nag waaye kilifa bu defee yenn erreur yi daf ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu lay def si ay déclaration am yoo xamante nii dañ koy def ah? euh, déet déet di si xam li si garaaw non waxuma la hmm. yi ngeen di joxe yi waa marché yi ñi si yi ko déposé avant le 28 suba ah, ci loolu. ñun ñuy def ñun ñuy def le 29 xamaguñ ku ñuy jiite kon xam ñun bokk mënuñu see <laughs> bokkoon. na ngeen ko déposé avant le 28 suba la wax de ba pare yoni ay éléments ñuy dugg biir marché mhm. di copté ay di copté ay nit na leen da ngeen dik bok ci commissaire d'accession bi jox leen ma seen carte d'identité wéru dé mën ngeen am juroomi junni mais juroomi junni ku koy marchandé ay nit Babacar, Babacar, Babacar, il y a un chouroche, le tout il y a un Mais Ay nit, ñu la ñun ñi nga xam téni ñom ñi ñoy kat yi ah, ah ñoñu dañu am suñu japp. Allah ñun jappuñ ci dara dañu doylu lima ko waxon serigne bobu nako ñun gëno ñu ëppoo ñu capital ndax liñ ñu am mooy alxanaatu kanzun la yafna doylu lañ am te doylu moy magazine bo xamanteni du jeex du mbiru alal wala lenen bu doon lolu ñun 83 et quelques millions mo jaar suñu loxo lakk mbaari fëgg jaay 50 millions yi ñing ko sédélé gouvernance de Kaolack yaa nga dégg 50 millions yi ñu ngi ko séddalee mbaari fëgg jaay 33 millions yi ñing ko sédélé sama bun sama sama sama bir place lañ ko sédélé 33 millions yi 33 millions yi dess ñu sédélé ko bam jeex

secteur bu nek dañ la fa defal élection nga voter gis nga euh, liste bi nii euh, gis nga liste bi moy liste comité social commission sociale bi gis nga gis commission sociale bi ngay gis ni dañ ne commerçants yi dañuy soxla ay nimbal yo xamantene day leen gar seen biir te munuñ comité social bi nañ ci 161 waaw waaw te munuñoo munuñoo chaque jour rek ñuy wër naan diw amna problème wala fièvre na nañ ko lamandel ñu nañ leen def ku nek 300 francs par par par weer chaque membre 300 francs par weer année bi nekk 3600. ku joxé ce 3600 année loolu buñ ko dajalé, képp ku ci am soxal, ku ci am jafé jafé, ñu défar ko ñu jimbalé ko ci bokkut tak li nga xamante ni mooy jafé jafe yi am ci marché bi yi am ci marché bu porte yàqoo ñun dañuy cotiser Défar ko. Hmm. Hein? Lepp luñ am ñun ñoy cotiser def ko ca défar porte bu yàqu Euh, dernière fois. ki nga xamanteni mo yoro won nettoyement marché bi dañoo toog bu mu yàgg nettoyement bi arrêté muy karama ko taal maa ngi may dégg ñu laaj ko mu ne dafa am problème ak ñi muy fay ndax liggéeyal nañ ko presque 6 mois daanaka fayuñ ko ñu ngi ko yoreel xaalis ñu ne ko léegi nan lañuy def ndax suñ marché bi bouché na taxamu nu ñuy def mu ne léegi da ngay ni dajale benn som ngeen jox ma ko man danaa si fay booy ñu nettoyé ko ñu dajale benn som ket ko ñi joxe téeméer ñi joxe junni ñi joxe ñaari junni mu defar ko defar ko bam paré pare mais problème bi am aussi moy bag bag bi nga xamanteni filay soti baga bag à ordure bi. Mm-hmm. ah dañu am ben différent ñom ak digënté mo ñom ak ICC pour ñu comprendre moy fi def mbalit fi def mbalit ICC mm-hmm. UCC ko jox ay bagam mu ci def mu ci def euh, labit. Mm-hmm. labitu kaniwo, moy muy am problème bi bu ko tegee ci buntu place ñu nako ko fi tek fim mu toll nii boo demee mbaar ma nga ma nga mel noo xamante ni vidéo yi moo la ko woonoon da yéemu ndax lan Kara bëgg na ko dindi mais amul fu mu ko def après. waaw waaw moo ko fa njëkk. moo ko fa njëkk moo ko fa njëkk ko jox sax bàgg bu nga xamante dana ko war a mën a liggéey la xaalisam ba mu doon liggéeyee presque pour ñu fay ko problème la ñun ñoo mujj cotiser. joko mu fay al employé bi mu ba soldabilité am weer jot dafa ne li ngeen ma joxone sax dama leen koy delloo ngeen wat mais lii est ce que bu ngeen nango comité de section am mbir mi du saafara wu. waaw comité de section bu am mais sareet bi ñu du fas ibabakar comité de session bi problème bi moy ñom erreur bi ñu dem moy comité de session mënuñ ko monter te xamuñu représentativité marché bi tey bu ma dikkee si kër gi rek tay na damay monter benn comité buy diri ci kër gi te xamuma ki ak ki qui fait quoi wa ak ki fait quoi. Hmm. légui da nga jital ko xamante ne du la jariñ mais boo defee yow nga arbitré jaar si yoon wa nga war jaar comme yow ni ñu la voté ni ñu la fale yow imaginez yow ñu fal la il le démocratiquement Kaolack yëpp ne du yow état ak xaalis bi ñu yore Kaolack yëpp na la yow yaa ñu doy tànn la nga dikk si barab ñee na ñii ñoo ñu doy nga ne ñii ñoo ñu doy bu ñu ma jiitee arrangé wuñ ma damay bàyyi dem créer leneen pour contourner ko loolu da nga yàqal sa bopp mm-hmm. amul sens. te loolu mooy mooy seen comi mooy comité de gestion bi muy wax ni te parce que comité de gestion boo xamante ni sëriñ bu organisé na ñaari ñaari recensement ci marché bi dafa échoué lu ko waral premier recensement ba tey mun laa wax ñaata kat jël nañ suñu jël nañ suñuy suñuy nombre mètre de place CPS sax teg nañ ko suñu biir place yi mm-hmm. jël nombrage bi jël suñu données données suñu données personnelles ba banque bi ngay banque bi ngay verser sax dañ la koy laaj. mais mais Lamine. Hein? mais lim bind fii tamit. ce que dalul xel mu ne ce comité de gestion dina am mission de mettre en place. Mm-hmm. une équipe. Mm-hmm. Euh, de gestion chargée d'appuyer les services compétents à l'enrôlement. Mm-hmm. au recouvrement correct des recettes. rax ci au nettoiement à l'éclairage public à l'aménagement et à la sécurisation du marché. ponk yi bari na. te lii mooy seen jafe-jafe. est ce que tam lii que tam paragraphe bii nii. taxul woon warul woon tax yéen. Mhm. ngeen d' accord ngir ñu mën a teg comité de gestion. non ñun ñun bañun comité de gestion li ma lay wax ñun comme ñun dañ na ko comité de gestion en tout cas sa comité de gestion bi ngay teg moom mënuñ see ànd. Mhm. ndax dafa dafa nekk sareet bu jiitu fas. bala faire def comité de session, da ngay xam lay représenté le comité de session. mais une personne boo pas ni yow amoo place ci marché bi amoo fa dara ba nga demee élection benn fois nga am nga vous ne créel comité de session, ñu la ciy dugal kooku da ko jëlee il quelques personnes qui ont fal léegi bu fekkee ne wóolu comité fal nga organiser ko organisé moom mu comité de session. bi mm-hmm. comité de session, bi en charge mais li ko si gën a amal solo mooy recouvrement boobu muy wax. Ah parce que euh, ngi def si commencé def loo xamante ne premier recensement mu di créer benn waaye xaw ma jaag lañ koy wax xaw ma ah, laa dégg mais moom mu la wax ne kii la may jaag laa lañ ma wax. mu ne day def recensement ci marché bi bi ñëwee mu ne léegi nit ñi ñu ne ko looy def recensement bi mu ne dañuy xool abonnement yi nga xamante ni amuñu woon ñu changé ko ak ñi nga xamante ni ay tablier la woon wala que ñuy fay juuti ñu def leen ay abonnement cent mais juuti yow kuy fa table tablier boo koy booy booy defal abonnement yow da nga li nga xew parce que ki nga xamante ni dafay am benn marchandise benn produit bu ko amee jënd ko jaay boo ëllëgee du jaayaat boo ko defalee abonnement par foo koy gisee. beneen bërki démb dégg nañ ko moom nañ fay nañ fay ñu toog benn bis ñu jot benn communiqué euh, mu ne léegi li ñu décidé mooy maire municipal de Kaolack décidé na képp ku bind.

ñu ne comme tableau bi da fait, ko fay fekk ñu wax ñu négocier ñu ne non benn boy lañ ko ñaar mm-hmm. parce que Serigne dafa japp ne Assane. Mm-hmm. daña wara a comité de gestion. Mm-hmm. ngir préparer élection délégué principal. parce que fi dañ en outre mission. la structure est chargée d'assurer de préparer euh, d'organiser et de sécuriser. l'élection des délégués du marché et en général d'accompagner le renouvellement des instances. de représentation professionnelle. Oh, mu ngi noonu kon donc ci commission de gestion war a euh, bàyyeekoo. waaw pour mën a dem ci euh, fal élection délégué principal. waaw ñii nag dañoo jàpp ni parce que dama jàpp ne réeróo dafa am. réeróo bu ba bu mag a mag parce que ñii comprendre sëriñ comprendre. Babacar réeróo amul de réeróo sëriñ moo wëlbati. boo xoolee. parce que paragraphe bi moom dafa wëlbati. complètement procédure bi nekkoon waaw kay le 15 novembre boobu. le 15 novembre xoolal date bële le 3. le 3 bii mi ngi nekk le 3 novembre. le 3 novembre xam nga moo jiitu. waaw validation de charge la def. li mu wax fii daf ko wëlbati fële. parce que fii bii nii. d' accord dafa dikk def changement. d' élection délégué principal. mooy ngir nga xam ne dinañ am ku leen teewal. waaw bu ñuy taxawal comité de gestion effectivement léegi nag mu ñëw ba pare mu ne comité de gestion bi la ñuy taxawal. waaw mën a fal koo xam ne. mooy mën boobu nga téye Alassane hmm. Hmm. mooy wax ne. mooy kay de charge ñoom Serigne. Euh, ak commerçant yi d' accord nañ pour ñu dem. élection délégué principal délégué principal. mooy boobu nga téye. Hmm. léegi ñaareel bi fii. troisième paragraphe troisième paragraphe en outre mission. Mhm. la structure est chargée d'assurer, de préparer d'organiser et de sécuriser. Mhm. l'élection des délégués du marché. et en général d'accompagner le renouvellement des instances de représentation euh, professionnelle kon bële moom euh, da ko da koo teg da koo teggi léegi bii nag moo baax yéen nag bii ngeen bañ waaw nangun ñu lool waaw waaw ñun lañ bañ voilà xam nga tax ñu bañ réeroo ngeen wa xamul tax ñuy bañ bii parce que mënoo liggéey ñun si loo xamante ni lee moo jaar yoon gis nga lee ñi mu ko liggéeyandoo da koo teg si teg ci xam-xam teg ko si te mais bii da koo teg si naa def léegi dem naa ba su ma àggee su ma demee si du ko arrangé parce que lima ma dut arrangé mooy mm. dama am ay éléments yoo xamante ni parce que pour nga doon délégué principal il faut nga doon délégué sectoriel mm-hmm. te ñi koy entouré yëpp nekk si secteur yooyu marché bi yëpp kenn mënu faa doon délégué sectoriel fa nga barab ba nga te boo doon délégué CETA du am du ñooñu duñ duñ duñ fàllu ñooñu ñoo ne ko nag ànduñ si ngay def élection délégué sectorielle. Hmm. kon daal yow da ngaa jàpp ni ñi nga xam ne ànd nañoo ak ñoom. waaw kay a def népotisme fal nit nga xam ne moom lañ ko bëgg a jox. waaw parce que dafa am ay projet si marché bi. ah dafa am ay projet si marché bi ndaxte gis nga avant réunion bi bi mu ñu wooyee réunion nañu recouvrement la ñuy waxtaanee. ak hmm. mbiru abonnement ah réunion boobu bi mu ñu ko wooyee bi ñu dikkee dafa ñoo dikk rek mu présenté ñu maquette marché bi jàmmal ma numéro téléphone bi doon ci suuf ma xool gaañ. seen xalaat yaa ngi dégg waaw da ciy baax numéro téléphone bi mm. askan wi mën a dugg participer joxe seen xalaat. ci man man dama doon laaj yow est yow da ngay politique. waaw man politique gu ma nag kenn xàmmeewu ma si politique man man daayira yi lañ ma xamee ak conférence ak organisation yi. mais mais mais collectif bi da boo xoolee. man moom ci ëpp ci i jafe-jafe. dafa mel ni wàllum politique moo rax ci biir. ah, ah, ah ñun moom. collectif bi c' est politique c' est ba ngeen am jafe-jafe politique yi parce que boo xoolee coow li muy bari bari kenn ku nekk intérêt am lay lay lay lal ci côté bi. Mhm. waaw ñun bu ñu doon politique collectif bi jaxasoo mhm. ndaxte marché lañ nekk xam nga marché mënoo foo yëngu-yëngu li ñuy wax ne ku dee si marché yaa tàgg sa bopp. Mhm. marché ak université fekk nga fi junni yu mel ni

gis nga lettre yi nga gis nii ñu ngi ko bindoon depuis le combien le 16 bi gouverneur lañ ko joxoon xamal ko li nga xamante ni mooy situation bi nekk ci marché bi pour ñoom ñu jug ci taxaw ci. maire bu futu lañ def. waaw gouverneur ñu ngi marché bi faw ngeen wax ci. Mhm. ngir ñu joyantiwaat affaire bi. Mhm. d'une moo waaw mhm. parce que li koy waral mooy dafa am ay autorités yu nekk ci dëkk bi ñun ñu nekk ci marché bi maire nay respecté prérogative am

déggante bi jàppandewul bu baax de allo. acca ñu ñu ngi lay dégg. Mouhamed Diop ñu nañu siyaar. delloo siyaar. waaye ngi si jàmm. alhamdulilah ñu ngi gërëm yow nag. ñu sant bu baax tey. aywa ñu teewlu sa xalaat. waaw xam nga euh, Serigne Mboup. Mm-hmm. Kaolack yëpp dañoo yaakaaroon ni ñëw pour defar Kaolack. Mm-hmm. waaye nag dañoo dem ba ci biir xam ne ñëpp la bert. ndax li mu commencé woon ak li muy wane nii doonul benn defar Kaolack yaakaar naa taxu ko jug defar boppam moo ko tax a jug ñu may dégg. bu baax a baax ñu ngi lay dégg waaw. man nag ñun ñëpp nag nañu am lu ñu bett ci moom. na mhm. delloo si xelam ak xalaatam. Kaolack moo tax ñu jox ko ko waaye du boppam. lu mu digaale woon ak Kaolack yëpp. Mhm. lii suma waa ji wax léegi nii dëgg la. kii kenn xamee ko ci wax waxat daayira yi lañ ko xamee waaye bu demee ba takku ñëw taxaw jug di jaayante am na nit lañ boobu dañoo bett na ëlbitku liñ ko fi segee woon defar Kaolack marché bi am ak ci liggéey ngoor ak jom mu demeek loolu waaye lëmb ci biir ba toog ëlbitku ngir boppam loolu Kaolack luñ ko nangu waaw baax wasalaam. leer na dégguma leen nag bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax Mouhamed Diop. mën ngeen def ni moom yéen ñiy seetaan ci 78 545 10 82 Lamine Diamma mooy gan gi ñuy war a waxtaanee ak càmbar marché central bu Kaolack yaa ngi ko doon wax léegi nii. Mhm. il paraît que su ma comprendre question mooy. yéen da ngeen am ak la personne de Serigne bu problème. Mhm. looy tontu ci loolu. non ñun am personne Serigne bu parce que Serigne bu suñu kilifa la ñaari yoon. Mhm. Euh, li tax li ma wax ndax may wax loolu moom mooy président chambre de commerce bi ñu wooyee réunion avant ñuy dem euh, élection municipale yi euh, boobu ñu ngi amoon problème ak lal bi Mariama Sarr bi ñu ko waxtaan bi ñu ko waxee mu ne mu ne ñu combat bi sax man maa ko waroon porté ñun yoone ne ko combat bi duñu si dugal kenn ndax yéen a ngi jëm échéance électorale te ñu fi dikkee si yow ñu ne yow daanaka ñun yow yaa ñu ngemb loolu la ñuy bañ ah li si am solo mooy yow moom moo jiite président chambre de commerce mu présenté bilan bi nga xamante ni def nañ ko fi ci chambre de commerce ma jël fa kàddu na ko waaw yéen voir yi port bi ngeen mm-hmm. defar ngeen ko te yéen yéenay chambre de commerce te marché bee ngi fi nekk ñu fal leen fi pendant des années te axe boo jëm ci marché bi yëpp amul benn tëli bu ci baax. dëgg la ah axe bi jëm ci marché bi yëpp ñu da tëli bu baax li ñu tontu mooy ñun bëggoon nañoo liggéey mais maire bi fi nekkoon moo ñu dut bàyyi di liggéey moo ñu ñoo ñuy ñoo ñuy ñoo ñuy doon gàllankoor suñ pante ni ñu tegoon sax ci buntu chambre de commerce bi. dañ koo tasaare keroog ñu ñàkk si ay xawma nangami millions ay vingt quelques millions ñoo leen waaw léegi yow bu yàlla defee nag yow yaa nekkoon chambre de commerce am nga loo waroon génnee si chambre de commerce bi liggéeyee ko lu jëm si marché tey nga doonaan maire de Kaolack kon amoo benn gàllankoor bu lay bu lay bu bu lay lu lay gàllankoor waaye nag bul jël mbir mi nag def ko revanche revanchard parce que Serigne fi mu toll nii ni muy doxalee mooy lam ñàkkoon bi muy nekk maire yi te maire xañoon ko ko ma jox len ci ben exemple rek mooy Auchan bërki démb. dafa dik wax ne da fay taxawal osan fan si. cœur de ville de Kaolack ba commerçant yi. japp ni osan ya- ya- bobu da len yaa ngi dégg hmm. mais comme eh, nonu biñ ñu taxawalee cœur de ville. legui ta osan bobu biñ ko fi wax mom bimu diké dikkee si ngeen teg contrat osan commerçant yëpp jog ñu dem ba ci président de la république Macky Sall. mo né wa Kaolack mënu leen fexé fexé ba osan du ñew Kaolack waye osan buy ñew Kaolack tamit minimum différence ak marché 1000 mètres la wara doon parce que magasin grand surface mhm. bu takalok marché day ray petit commerce bi fa nek waaw han ah, ñun ñu nat ko jale fim ko tek ci cœur de ville bi nat ko bu buntu pomi kaas mu nek 300 et quelques mètres mhm. mariama man biñ togué mak mbar fa jaay muy ki biñ togué ci problème euh, ambulamani mom mhm. biñ waxtane bay jeex mariama mo wax sama lam lamina ma deg biñ tuddé ocean mu ne ma man serigne bu aw mang mom ci problème ci ocean lima wax moy règlement bi suma indi le espace bo xamanteni ni 1000 mètres ma signal ko contrat nako dana danaa ma signal ko contrat mu def fa Auchan sëriñ bàyyi te ba tey ci tay tay barki dembu mu ne maire bi fi nekkon dafa ragal ñi ñew bëgguma yobbu ci yoon ndax jëlon na seen xaaliss xam avocat na ma bayil garaawul jox leen Auchan kon taxaw na ci télé yi na man tant que doon maire ku dem seen TV. du seen heure Auchan du nekk cœur de ville. mais politiciens mais mais moom du politicien ñun jàppuñ ko woon politicien ñun ndongo daara lañ ko jàppee woon comme ñun. duñ wax di si day juum ngeen. ah juum ngeen. ah ma ne moo dàq politique man nag politicien la léegi dafa doon politicien kon mais loolu baaxul parce que. dañ na la gis nga kilifa. boo xasee joxe sa kàddu boo juumee sax. juum ngeen waroo dellu gannaaw. yéen ñi itam juum ñi ànd ak yow ñoo war a ba sëriñ ñëwee di seen baat ne leen du ma politicien waroon ngeen ko wax ne politicien nga. waaw non non dafa noo ne ndongo daara la. ñu gëm ne kii ndongo daara la koo xamante ne li muy wax ay alxuraan la lay indil. la muy wax fa la koy teg di leen càcc maayen di leen càcc maayen waaw fa la koy teg kon nag boo taxawee yow nga xëyaat na da ngay indi wat osan fim tolni promesse électorale mom dal Babacar promesse électorale dige rek ah rek waaw xale la ah. waaw xam promesse électorale lol politiciens koy wax mais nit ñi senegal bu fekkee ne foofu la ñu war kon rew mi fay am problème parce que crise de valeur la jëm. ci la nekk nekk valeur la am. Mhm. nit wax ne sa wax ja. Mhm. li nga wax. koy chamonté boko mën ta chamonté nga ne ah li de mako waxone waxoon néna na ngeen ko yónnee ñaari daw ngir ñu mën a teg comité de gestion bi balaa le 28 ni ki ëllëg. nu ngeen nar a def yéen ak kuy nar a dem. ci waaw xam nga ñun mënuñoo yónnee ñaari ndaw ndax ñu ngi war a def assemblée générale le 29. le léegi moom nañ ñu ko yónnee ñaari ndaw te yow moom mi ngi wër dugg si biir marché bi di wut ay ndaw kon kay xaaru ñu yónnee ko. ay élément am la jël ñu digg si nit digg si ay nit na leen jox leen ñu seen carte d'identité comité de gestion bi bu ngeen si bokkee chaque weer da ngeen am 25000. waaye mais 25000 da nga ko présenté marché koo xamante ni da ngaa xëy mu ne la réunion recouvrement nga xëy mu présenté la maquette marché. est-ce que dégg li mu wax bu mu tukkee ba ñëw dafa mel ni daf ci daf leen andi sëri ja. waaw ah. kenn mënu maa def comité de gestion yëg ngeen ko. non non comité de gestion moom mun na ko def waaye ñun nag mënuñoo tànn ñu mënuñoo jël ñu tànnal ñu ñun waa marché. kay nekk sa comité de gestion ba moom na tànn ay nitam dugal si comité de gestion am comité de gestion ñun xam nga suñu rôle lan la. Hmm. ñu fal suñu délégué sectorial fal suñu délégué principal. sëriñ bu dikkee na lii laa bëgg a def si secteur bi damaa bëgg a def recensement comme bi mu fi yónnee woon jaag. Hmm. mu dikkee damaa def recensement ñu dugg suñ groupe whatsapp 450 personnes ne leen jaag moomu li muy recensé xamuñ ko amuñ ci dara lu mu leer bu dikkee bu leen ko faale bu leen ko wuyu. fu mu dem ñu dàq ko yooyu ñaari nit yooyu mu leen demandé pour ngeen jox leen ko waaw boo leen bañee bañ yóbbu bañee joxe ñaari nit yooyu est-ce que bu ñu demee ba ci biir est-ce que doo leen réccu te fekk na réccu bi day fekk ne jëf wees parce que mën ngeen a bañ a yónni ñaari nit ñu fekk moom def na la mu bëgg a def ba pare waaw xam nga lu illégal lu illégal boo ko boo ko boo nu métti métti mhm. nga bañ caa bokk moo gën nga koy accompagner parce que boo gisee coow li bëri si réew mi yëpp dafay am lu illégal lu ñu teg bi ñuy wax ne lu lu tas sëy nuyoo na ca ngoro ga dañ koo fay fayut. Hmm, bari na de. waaw nga ne on oh, ni garaawut maslaa. di naa ci bokk ni par maslaa gis nga doomu aadama booy doxee par principe yàgg-yàgg ak lu mënti def parce que ñun dañuy des marché moom nee na amul place marché nekku fa amu fa dara hmm. ñun nag dañuy des marché ñaan yàlla suñuy doom des marché hmm. kon processus bi ñu njëkkoon a indi ñu tënkoon ko bu ñu ko tënkoon coowal marché day jeex secteur bu nekk ka la fay représenté waaye ku xëy xëy rek na man maay délégué principal dem ñu remplacer la par big ah nga ne maay délégué principal te délégué principal amul ñu la fal délégué principal ay délégué koy fal. très mais waa marché Babacar. am na benn yóbbante bu ma yóbbante woon ci yow. Mhm. parce que nee na sëriñ da nga koo fal mu ñëw def fi benn barrage. Mhm. léegi ñiy laaj laajte yéen waa ànd taxaw marché. Mhm. barrage boobu lan ngeen ci wax parce que am na ñoo xam ne ànd nañ ci. am na ñoo xam ne ànd leen laaj yéen. lan ngeen ci gis. loolu mooy dëgg gi nga xamante ni nag moom lañ nekkee gis nga barrage bi bi barrage bi xam nga lan moo ko indi dañoo waxoon ak Mariama Sarr mu dégagé rue bi wax naa leen ko. Hmm. bi mu ko dégagé premier événement tabaskeem kenn gisoo leen fa kenn koo xamante ni lal na ci tali bi mu jàll nit ñi di jàll oto yi di tourner contournement. mooy occupation anarchique bi occupation yaa ngi dégg. ñu doon xeexaale ah, police bi deux ans xaw ma trois ans benn kàmb nekk fa. Hmm. bi ñu génnee ba benn sortie préfet woote ak chef de service yi mu concerne ñëpp. Mhm. ñu defar ko sur la semaine oto yi di jaar foofu. Mhm. bi ñu dikkee si loolu nag ñu ñëw si événement yi sëriñ di door yi toog ñu dem si secrétaire EG mu ne dañuy door yi toog mu ne bu ñoo jël benn décision si marché mais li ngeen ñuy may mooy am nañ benn xalaat mooy wut ay garde-fous ay garde-fous lañ njëkk événement Korité. maanaam ay garde-fous ay baa ay garde-fous barrage. Hmm. teg ko si rond ci côté yi bi. pour décarter tëli bi oto yi di viiri bu korite jàllee nag ah fii ñu dégagé ko présenté fa benn maquette tableau baa nga fa. def ko pavage. tableau boobu léegi mu mën fa un na defuñ fa dara léegi def ko pavage def fi ay garab def fi ay cantines yoo xamante ni un mètre cinquante sur trois mètres de teur lay doon ambulant bi mën na si jaay bu paree dugal ci bagage am ñu ne ko bu leen bu bu leen. bu len gindi anarchie di créer anarchie parce que lolu boko ko timit anarchie bi nga don bañ ngay wat ta cantine yoy mëno ko matal légui bi ko fa téggé lolu ñu dik complètement tabaski ñu né barrage bi légui garde fou yañ fa téggone dañ koy dindi légui dañuy dik créer fa système de barrage mais système de barrage boobu euh, bu ci gis nga bu ci autorité yi waxut digënté ñi nekk seen buntu plage ak ñom boy yi nga xamanté ñoo nekk seen kanam décider nañ né nyom am ñom wa buntu plage yi ne ak ñom bu si bakkan di xaar parce que ay ndaw lañ ni ñoom suñu leen fa jëlewut ndaxte duñ jënd seen i place ay millions ba pare ñu teg ay ba ay ay ay nit bàyyi leen fa ñu teg ay place ci seen buntu place yi waxuma la loolu balance bi léegi jël nañ ko ñu ngi lal kay ñu ngi lal ci biti ah? Ah? surtout 17 heures moom léegi xam lan lañ ci waxoon central moom waaw xam nga lañ ci waxoon waaw arrêté département yi ma ñëwal la rek arrêté département yi bi ñu toogee préfet dañ ne arrêt yi dañ koy dañ koy organiser mm-hmm. du ku nekk fu mu neex rek nga nga def benn arrêt ñu xool secteur bu nekk fu marché laaj arrêt ñu aménager ko même fi ñuy raxasee si côté Kara kii bi boobu mën nañ leen fa aménager ñuy gaare foofu pour nit ñi mën ñëw dégager mais xoolal li si xew. ñee fi mu toll nii mais xanaa Lamine dañuy nangul ne. marché central moom amul organisation quand waa waaw mais autorité bi la. lu neex waay def. mais autorité bi la. 17h boo fa demee mën nga def 30 minutes ci biir marché bi. waaw léegi nag loolu la ñu wax anarchique lekk ci digg tëli. mais da ngay jaay. lekk goo xamante ni da ngay dendeek ndox mu foos muy wàcc xoolal hygiène de bi muy jot ñun bu ñu dee sapeur pompier bi ñu demee réunion sapeur pompier lu ñu wax mën mm-hmm. nañu marché tey yàlla très très très nii mu nu mu mel évacuation énergique bu fi dara jéyee amoon si biti marché bi ñun du amuñ fu ñuy intervenir mm-hmm. il faut ngeen dem ñu defal leen benn plan boo xamante ni de circulation la mm-hmm. boo xamante ni danañ ko mën a def pour bu dara xewee ñu mën a mën faa def am na maire am na bu fa daanu benn événement gaañ amul ko mënuñ ko évacuation problème la su ko defee yooyu noonu ñun dañ ko ko wax bi mu toogee dañ ko bindal vingt cinq problème mu marché bi vingt cinq occupation anarchique bu extrême moo am ci marché central ak ak ay solution tegal ko ko mais nag courage politique moo ko manqué ndaxte Mariama moom dafa am ñu nekkoon ci gannaawam jiite ñu ne dañu créé ambulamane yi nekk ci gannaawam fu ñu wootee fu ñu demee meeting ñu ànd ak ñoom xam nga ñoom politicien moom ku politique bi rek bokk say say waaw say waaw duñ ko faale mm. ñun nag looloo ñu nattu ñun moom xajuñ si gannaaw kenn bay topp kenn vraiment parce que suñu liggéey doy nañu suñu activité doy nañu. Mm-hmm. kon daal mën nañoo jàpp ni kon euh, monsieur le maire bu mu toogee ba léegi. Mm. Euh, sampagul ci lim leen dik sampagul dara lu tegu mbala loo xam ci seen intérêt bopp la. waa def na def na def na parce que bi mu duggee bi mu dikkee nettoyage marché def na si lu rëy. Mm. waaw parce que génn na fa loo xamante ni si ordure. ak système de nettoiement boo xamante nii kan am na solo boo xamante ni kenn mësu ko faa def. Mhm. ñun dañoo waaw ñun ñun tamit dañoo contribuer keroog ña fa ñëwoon ku nekk cotiser suñu biir jox leen ay ndékki. Mhm. toppatoo leen woote suñuy kër comme bañ xamee ne moom toggut añ ñu woote suñuy kër suñuy añ yi nga xamante ni ñu lañ doon indi si marché bi ñu indi ko ñu bokk ak ñoom ñu añ la laan demee tamit ñu joxaal leen ay ndékki liggéey ko kon def na foofu. Mm-hmm. bi mu dikkee teg na beneen pa boo xamante ni ñun dañ ko bëggoon diggante ak UGC. Mm-hmm. ñuy dugg ci marché bi di bale. Mm-hmm. ah di bale di bale ngoon ak suba léegi bi mu dikkee am na ñoom loolu ñu koy def mais période bi mais léegi moom fa mel ni loolu na gisatuñ fi kenn. wàllum sécurité ak wàllum euh, éclairage. waaw problème éclairage bi mu dikkee taal na lampe yi nga xamante ni moo alentouré marché bi yëpp mu desoon intérieur marché bi. ñun nekkoon na suñuy programme bokkoon na ci loolu mais léegi loolu lépp fayaat na. takutu depuis deux weer ay ay weer ngi ni loolu amatut problème kani caniveau yi euh, biñ ko première curage bi amna problème mais biñ diké bimu jëlé en cara cara liggé na fa no xamanté ni musa mës caniveau ba nga xamanté ni nawet bi passé marché amul yenn jafe jafé yi acte yooyu mu tégon nak loolu lañ ko bëggon compagnie mu am nak ku organiser wu mu organiser marché bi ba am secteur bu nek mu xam kan mo fay représentativité bu boba bu créer comité de gestion ñooñu nga xamante ne ñooy représentative sécurité bi ñu jox leen ko nga xamante ne duñ dikk rek lu ñu leen valide koo xamante ne bu demee réunion suñ ko waxee sax xamul lu ñuy réunion dañoo bu ñu la woowee réunion da daw ñun ñi hmm. boo ñu convoqué réunion tey problème bi ñu am mooy kan moo war a dem. Hmm. même émission bi hmm. sax problème bu ñu parce que temps bi. coowal bouche yi nga xam ni euh, Kaolack am na jafe-jafe bi waral bu lakk amee balaa ñuy intervenir yenn ci ay euh, place daal di. kii loolu waaw loolu bouche d'incendie moom man je suis que. Euh, bi lakk mbaar fëgg jaay amee. problème bouse de sang euh, problème bouse d'incendie la ñu amoon. parce que lakk gi bi mu démarré euh, sapeur pompier teel naa ñëw à temps ñun bi ñëwee dañu jërul ngeen di dugg. 6 3 places 4 places léegi léegi ñu fay ko mu jeex. mais bi ñu fayee place yooyu ñuy xaar seen ndox jeex. ñuy wuti renfort ñu këdd bi nekk CBAO. amul ndox. à la fin xaw ma ak Fatick fan On a lañ la si la mi mais Mariama Bobu, déggoon nañ ko mu a na projet bouse d'incendie yoo yo xamanteni dana ko def ci marché bi mu samp na six bouse d'incendie yoo yo mi ngi ak cœur de ville bi. Mhm. tournal bi. poste bi amna bu nekk fi amna bu côté e, e, église bi. am na yoo xam ne ñu ngi encercler marché bi bee moom wóor na ma ne am na ndox parce que compression na. parce que marché bi am na fi lakk ma gis ne dama fay romb sapeur pompier di fa rootee. kon problème bouse de sang yi moom yaakaar naa loolu solutionné woon nañ ko. keroog bi ñu dajee ak sapeur pompier sax ñoom génn nañu seen site na leen bouse de sang yi yii ñoo fi nekk li ñu bëggaan moom mooy benn bouse de sang boo xamante ne dañ koy installé intérieur marché bi. ci biir marché bi. intérieur marché bi. nga xamante ni si si si cas angle voie lay doon. Mm-hmm. yooyu moom bu fekkee ne na am na dana gën a mën a jàppale marché bi. Mm-hmm. te et puis aussi jamono dafay dox ba du ndox rek mooy fay lakk. Mm-hmm. parce que ndox dafa am ay liquide yo xamanteni ñoy fay lak ñun collectif en taxaw marché bi am na benn société waaw dañoo amna waaw am na yew yi tax réew mi waaw <laughs> réew mi dal dina met ci kanam parce que léegi ñëpp a yeewu waaw mhm. lolo tax nak ñom nak li ñu xamoon ay ah, maire yow dal yow yaa ñu doy vraiment ñun kay ñi ngi ni sa gannaaw nopp ñooñu rek top duñ la wax benn revendication duñ la wax benn xalaat door ñëw tok di <laughs> développer di di tegal ni non nii mo baax ni non non non on ne fait pas ça on va faire ceci loolu moo tax légui ñu biñu waxtane kérok waaji dafa woo commandant sapeur pompier bi nekk Dakar seen chef bi sax la wax na ko man de musuma dalal ñoo xamante ni di proposition yi ñu ma fi indil waa ji dafa apprécier affaire yi te ma ñoom sax euh, am na benn benn benn benn saaru circuit bu ñu développé boo xamante ni saaru ay appareil électrique yu ndaw la yoo xamante ni au lieu que oto. Mhm. bu dikkee ko télé télé ji télé gi de fay fay lakk. Mhm. ñun demoon nañ ba benn société boo xamante ne day yëngu si affaire insecteur yi. nga xamante ne dañuy fay kii. Mhm. ñu waxoon ko mu ne benn bu nekk dana ko jaayee soixante quinze mille ñu ne léegi nañ ci waxtaan délégué sectoriel bu nekk. Mhm. bu ñu jëndee benn teg ko ci yow gardien bay nekk sa secteur ba. Mhm. nga xamante ne dañ ko koy jox mu koy garder. bu dara xewee balaa dara xew. mu solutionné ko gis nga yooyu yëpp dañu ko tegal maire si lettre première rencontre. na ko vingt cinq problème a ngi nii. vingt cinq solution ngi nii loo si bëgg bu ñëwee ñu développé ko. mais dafa amul sens nag mais dafa amul sens ndax dafa ay nitam jiital mer gàddoom gi. <laughs> kon daal li ngeen àndul. ak ak moom xam nga la xam nga Kaolack fi mu toll yi lan moo ko bloqué. Hmm, mooy lan bàcc ak sàmba ñi fi nekk. Hmm. bàcc ak sàmba waaw maanaam bàcc. Hmm. bu am ñeneen ñuy jël daal ci kawam daan ko gars yi sàmbaa leen yebal. Ah. sàmba bu am ñeneen ñu dal kawam mu ne ko bàccee yebal ñoom ñu nekk si loolu. te loolu dañ ko war a dépassé. ah comprendre ñaari leader lañu. da ngaa da cax waaw moom mooy ñaar ñi. te pourtant sorewuñ nag. ñoom ñaar ay ndongo daara lañ. waa kay. ok kii mi ngi farfe kii mi ngi farfe te gis nga kilifa bu ma ne la diw mi da laa contre non bul bul jàpp si. diw yokkal la lay noonu kooku ma lay yokkal noonu. xam nga li nga war a jàpp. Mhm. diw mi lan la wax ñun suñu point de presse suñu sortie suñuy courrier mosoo dégg ñu wax loo xamante ne nii du revendication bu normal mosoo dégg ñu wax loo xamante ni dafay jëm ci politique kon nit ki li ngay li li mu lay wax da xool moom lan la la jox nga traité ko ku ne la marché bi am na problème mu électri waaye bu ne ko bàcc nekk ca gannaaw moo tax wax. ah nee nañ nag président bi dafa far nag waaw li jëntil bi am na ci droit dañ ko woo élection président xam nga xam nga ak collectif ànd taxawu marché bi. Hmm. Eh, yow gis nga association yi nekkoon fii si si si di di di si jamonoy élection municipale yi kan moo si rëcc. ñi ci am xaalis duufal seeni poos amul am ñoo fi yoroon ay millions benn leader politique moo ko nako na ko association ànd taxaw marché bi laa soxla pour ñu jàppale ñu mu ne man amna naa mouvement politique fekkee sama mouvement nga soxla wala mu ne ko soxlawuma sa mouvement association ànd taxaw marché bi laa mu ne ko association ànd taxaw marché bi politique wuñ dañoo interdit luy jëm politique dañoo interdit dalal leader politique mhm. dalaguñ élection ba mu jeex dalaluñ benn leader politique mu ne ko léegi xamul mu bëgg fexel ba dajalel ma association an taxaw marché bi sama kanam buñ toogee dina tek 6 millions ci table di dañ ma politique mu woñu sama ko place nañu nak information bi la leen di jox euh amna leader politique bu mu wax né ndax san an taxaw marché bi kan, kan ah am leader pa dama baña a tudd rek ah, pour expliquer ñoo ñuko ko bari nañ wa dañu baña a tudd xam nga mhm. mu ne ñu ne politique guñ politique waawuñ té ñun nak du ñuy marchandé ba leen jënd li am solo moy ñu nak ban décision lañu jël campagne électorale yaa ngi ñëw te leader yi dañ dugg ci ci marché bi ñu né képp ku bok ci bureau bi ah amo droit taxaw da mën nga dalal bu fekkee da ngay politique mën nga dalal sa leader mais amo droit wax ben cadeau si turu and taxaw marché bi bo dalé leader politique si turu and taxaw marché bi soko défé dañ la génné si kurel gi man mom yalla dama dimbalé ba amul ben leader bu dugg marché sax man ma man fekk ma fa sax man buñ dikkee dama leen daw. très léegi nag léegi nag dafa am benn tenor boo xam. waaw ñooñu di moom laa wax waaye tout ànd taxaw marché lañ wax. mais dama ne d'accord ngeen ne. am na leader yoo xam ne nii. ñoom ñu ngi doon ñëw di taxawaalu ci campagne bi mais ñëw nañ foofu. dëggal na ko chaque jour jour ñu ñëw chaque jour gars ñëw. uy ma waaw léegi nag dafa am benn tenor boo xam ne. Euh. bokkoon na ci ñi taxawal ànd taxawu marché central. Mhm. nee na da ngeen ko beddi génne ko ba mu taxawal beneen ngeen mhm. sax ngeen koy accuser ne dafay nos bu du noccanteeg moom. Mhm. lu tax noonu ak lan moo tax njëkk ngeen génne ko ci. waaw bu ngeen bàyyi ngeen def. non non c'est-à-dire dafa am loo xamante ni si li ñu wax ne li tas see rek lu yoon na si njëlbeen gi. bi ñu def ensemble général euh, ànd taxawu marché bi euh, dafa postulé woon euh, parce que jamono élection la woon. xëy na am na jaakaaroon ne amna am na ñoo xamante ni mën nañ leen marchandé dañ la kareel mbir ba pare lañ lay kareel la leen tax a yow bokkut mais ñun sama saar gi am na loo xamante leen ciy dugal bu yeboo nga waajaat ko parce que du nit ko xamante ni dañ koy manipuler parce que taluñ ko parce que suñu ay responsable lañ xam nañ luñ war xam nañ luñ bëgg xam nañ luñ bañ mun mm-hmm. nga créer dara nag mun ñu si dugal yaakaar ne mun nga ñoo utiliser mais da ngay nax sa bopp léegi bi ñu mu ne dafa dafa bëgg doon candidat dafa bëgg doon candidat collectif dafa président taxaw marché bi kan la ci. man euh, taxaw marché bi ah, yow yaa ko tudd yaa ne moo benn leader tudd ko yow mi ko wax kay. waaw kooku sama doom bàyyi la sama mag la. parce que daaw li ma bokk moom bokk ma ak kenn ci marché bi. Uh-huh. waaw léegi mu ne da koy taxawal. ñu posé candidat boobu man sax kii nekk président xaw ma ko woon. sama doom xaw ma ko woon de mais ay mbokk lañ ndekete. barke bi même pas un an bi yaayam gaañoo laa doon xam niñ bokk laa doon xam ne kii sax bokkoon na mu ne ñu présenté wu ñu ne présenté mën a proposé moom mu présenté wu kii présenté wu xam nga boola ngaa dem assemblée générale mun nga def proposition bureau ñu def proposition bureau suñu bureau ñu siy waxtaan mu ne dafay doon candidat mais dafa am benn facteur boo xamante nii euh, jàpp nañ ne bu ñu ko tegee loxoom si si en collectif ànd taxaw marché bi pour mu mën ñu koo développer dana jafe mooy ah koo xamante nii pour l'instant jamono ji ñu toll booy jiite da nga war a mën a bo munte bind sax nga meuna lire lire ay texte lire ay document wa yow buñ bindé texte to da ngay dem né di xolal ma li té da ngay jangante ak ño xamanteni ni si ay këyit mën nañ la seen nax. am ay critères dal yo leen tegoon. wa kay bëgg nek critère président critère waaw kay. ok mom critère yoy motaluko critère bi motaluko voilà légui loolu moo tax ñu falké président falko vice président. mu gëd dëd mu nek ca. ñu dem élection délégué sectorielle amoon nay candidat yu wara nek ci secteur bobu ñoom ñooñu ñëpp ñu ne leen bàyyi leen bàyyi leen ko mu présenté wu ñu fal ko délégué sectoriel. Mm-hmm. bu ban bu bu ban mbaar bu mbaar effet. mbaar effet ok te foofu fi mu toll tey boo demoon tey bu ñu fa doon organisé waa délégué sectoriel moom dañ koy génne waa mbaar effet duñ ko fa teel loolu xam na ko. léegi ñun ñu fal ko ñu ne nañ leen bàyyi bàyyi leen ko mu jàll délégué sectoriel comme moom mooy suñu vice président te bu ngeen déposé candidature mun ngeen koo gañe kon bàyyi leen ko moom ngeen jàppale ko mu jàll en tant que en tant que en tant que délégué élection délégué ko def euh, presque am na mu am un an bi maire di dooti toog la maire dooti toog la léegi biñ biñ ñuy dem di dem di dem di dem di dem ba si biir ah ñu fañ ta lañ waxoon ak sart yañ si nit ki na nga invité yenn yenn yenn yenn leader yi ak yenn politiciens yi ngay dugalanteeg yenn détails gis nañ ne euh, respecté wu ko ñu tok bam yag ñu jigné carrière de groupe ñu ne ko nak comme dafa def dissident carrière groupe ki mënu to bok parce que benn taat groupe lan whatsapp wala ah, lan groupe mbolo association tuddu tuddu tuddee ko benno hmm. carrière nee na nak dañ né olof daf ne benn kay mën ta war ñaari mbaam hmm. benn tank wa benn tank mën ta war ñaari mbaam hmm. légui nak ñu né comme démé nonu ki dafa def fonon génn na léegi comme génn ñu retiré ko si biro bi. bàyyi ko léegi ma ndax bi ngeen koy retiré laaj ngeen ko motif yi tax mu créé loolu. waaw bind nañ bind nañ bind nañ bind nañ benn. benn woo nañ ko woo nañ ko laaj ko wax ak moom si bureau bi mais bind nañ tamit loo xamante ni notification boo xamante ni lii mooy sabab bi parce que loolu dañoo toogoon réunion waxtaan comité charte yi génne nit ci mbooloo mi. ban ak ban ak ban la. waaw waaw charte yi génne nit ci mbooloo mi mooy ñu dem ba gis la ne. yaa la mbooloo mi tënku woon tënkuwoo ci mooy yaa ngi dem dugg ci politique bëgg a politiquer mbooloo mi hmm? politiquer mbooloo mi wala ngay nga bëgg a nekk ci groupe ba pare bëgg a nekkaat ci beneen groupe boo xamante ne ni bokkut ak intérêt yi nga xamante ne ni moom la mbooloo mi mbooloo mi mbooloo moo tax a jóg mbooloo mi. def def genre beddeeku waaw def genre beddeeku def genre beddeeku leneen ni nag moom. ay waaso la leneen nag moom ay jikku waaso waaso dañ ko aaye dañoo aaye mbiru tarixa waaw parce que mbiru tarixa parce que bu fekkee ne 457 personnes ku nekk ku nekk bokk fa nga bokk am ñoo xam ne am nañ ay tari am na ñoo xamante ne am na am na am na non musulman si suñu mm. biir ay chrétien ngi suñu biir ñoom ñëpp suñu biir kon boo fa dindee affaire waasu ak affaire tarixa ak affaire xeet yooyu dañ koy aaye si collectif ànd taxaw marché bi te yaakaar naa loolu lañ bëgg nit ku nekk sàmmoonte ko léegi nag euh, nee ngeen nee nee ngeen dafa nee na sax moom démb xaalisu li nga xam ne moom mooy euh, marché bu mu lakkee xaalis bu baree bari amoon na fa waaye seddale bi dangeen def bi bukki bi njuur bi doomi bukki bi sama waaye ngeen def seen poche loolu am na wala amul waa defectivement yow ko kii wax loolu sax bokkut ak ki nga ki ah ngay wax nii ki wax loolu moom mooy Pape Fall waaw waaw Pape euh, mi ngi Pape moom mi ngi nekk si gannaaw mbaaru fëgg jaay nekk en face mbaaru uude bu ndaw bokul mbaaru fëgg jaay mais war nako gannaaw même sax mom délégué waaw solo na mais sédélé bi num démé xam wa fofu lay ñew parce que mbir mu nekk da nga indi cëslaay la. wa wa mais gis nga bi mbaaru fëgg jaay lakkee. Euh, dama sétane télé man mi dama sétane télé sétane len ñom am ño xamanteni ni ñom dañu taxaw wax postulé wu pour bëgg nek ak yi ci kanam li tax ma ko tay la la koy wax euh Euh, préfet bi fi nekkoon def déclaration boo demee ci archives cent ne 172 places ñoo lakk mbaar fukki jaay fekk cinq 500 cantines lakk li liñ foo information bi ñu ko jox ma xëy si suba teel ne sama booy bi coow am na mbir am na ñu yàqule nañ yàqu gi man ci man la yem man la yem te bi may yem ci moom dama xëccoog commissaire na ko commissaire groupe moo nekk sama kaw place te seng yi dañ ko war a daaneel bu ko daaneelut groupe bi bu exploité day yóbbaale ñu xëccoog man xëccoo xëccoo xëccoo ma bourse génn mu génne ñu booy daaneel seng bi fekk place bi ma taxawaloog dafa am robine ma ne maire bi caabi ji ñu dajji bunt bi génn xëtt robinet boobu arrêté foofu lakk ki mu yem ñu ñu ñu nekk noonu bu ñu dikkee ma ne ko nañ jóg nag jóg jot na ma ne ko jëlal am benn rajo bu ñu doon teg pour vanteeree ko sama buntu place ma jël rajo ba woo nit ñi garab ga ne leen kaay leen ñu def recensement parce que wax kilifa kat bu ko joxee fausse information boo koy dindi da koy dindi ak ay preuve ma woote ñu def recensement bi ñu defee recensement ñu génne ah trois cent vingt et quelques cantines ak ñoo xamante ni ay propriété lañ doon liggéey ñu ak koo ko ak globalité mu nekk cinq cent quelques cinq cent personnes yoo xamante ni ñu ngi doon jug si kii bi Mariama Sarr di dem conseil des ministre le jeudi. yóbbaale yaa ngi dégg le jeudi. Ah. ñu wooma na ma Mariama dafa bëgg a yóbbaale information jox ko président la république. lan mo lakle mbaal fëgg jaay li fa lakk ak ñi fa lak la ñaata la mané ko global dal buñ ko défé 500 quelques personnes bi ko waxé président de la république 600 si la ne ministre de l'économie et des finances 500 quelques personnes ku nekk 100000 francs muy 500 muy muy 50 millions mu tiré ko biñ ko génné biñ ñëwé Mariama Sarr dikk ne wax président de la république di joxe ne joxé 50 millions Mansour Faye moko indi à la gouvernance de Kaolack mhm. ñu dem. Pafal bi ñu dikkee ñu ne nañ leen créer nag bi ma créer recensement ba pare ñu ne nañ leen créer benn comité ñu dikk ne comme Pafal bi ngi ci mbaar mi te yàgg na nekk ci gannaaw gaa yi nañ ko ci boole dugal ko ci. ba ñu dem rek Mariama Sarr sax di dem ci Mariama Sarr dañ ne woon duñ ko yóbbaale gaa yi nañ ko yóbbu ndaxte comme mi ngi ci gannaaw mi nañ ko yóbbu bañ demee bañ rajo contré Mariama Sarr ba pare moom da ko gis ci perte wax ko ay doléance secret ci benn doomam bu mu bëggoon mu liggéey ci la ko Mariama Sarr jàppale mu ne ko man sax ci yow doomu Mariama Mariama Sarr sa yaay sa yaay lañ may wooyee yaay Mariama Sarr sa doom lay wooy ñun ñoo ko ci dugal ci loolu kon moom xamul lu ñuy wax ci problème xaalis 50 millions yi njëkk yooyu hmm. bi ñu likkee dañoo wax processus bi ñu koy kiyee ñu ne propriétaire ak occupant gars yi ku xëy nekkoon marché am fa place boo xëyee ñëw sama place mu jël sama ordinateur booy bi di saisi jël sa photocopie sa carte d'identité jël sa numéro téléphone jël sa place yow yaay lan propriétaire yow yaay lan occupant ñu ne place bi propriétaire bi Babacar la occupant bi Alassane la moo gouverneur waaw ma yónnee ko liste bi mu woo ñu woo secrétaire am ñu dem gouvernance mu jox secrétaire bi xaalis bi ñu woo leen ne leen bi sàngam na ngeen ñëw gouvernance propriétaire dana am 100000 occupant dana am 100000 ñu séddale bureau 50 millions yi ba 50 millions yi jeex ñu dem bureau gouverneur ñu def ñu décharge ñu bind def affiche signé parce que gouverneur am na ko fenn femme boo xam dañ koo jox 100000 francs mu ne dafa manqué 10000. bi ñu ko waxee gouverneur gouverneur mën a déet loolu mënut a nekk man xaalis bi mu fi tegee fii sama biir saal lañ ko compté dafa am da da da da sóob mën nga ko man maa ko doon paqueté parce que xam naa lu maa koy fay. Alioune Badara Meng moo fi nekkoon bi ñu liggéeyee ba ngoon nga liggéey ko deux jours ñu pare mu defal ñu décharge suñu signé ay kayit tey boo diggee sama place ma génn la kayit yëpp waaw. ñu dikkaat daal sore na. waaw waaw ñu dikkaat ñi nga xamante ni moom la ñu om politique yi doon jox. gars force mu gaaw na. waaw homme jeex yi bi ñuy jox ci kaw waaw homme ñuy jox. li ñuy jox ñu nekk. góor euh, góorgóorlu yeeg. waaw kay ñi ay six waaw ñi quatre. presque mu nekk si ay presque ay trente trois millions. Hmm. ñun bu dikkee liste bi la ñuy yore rek. diviser ko léegi propriétaires yi. Hmm. ñoom génne nañu leen. deuxième tranche yi occupants yi rek moo ci jël. Hmm. parce que ñoom place lañ fa amoon rek luye ko nit ki. xottu place bi lañ ko doon gënël motax ñu boole len ci 50 millions yële légui occupants yi nekk ci place bi nga xam ñom ñoo lakalé seen i marchandises ñoo nekkoon place bi mm. légui liste bobu noonu moy 300 et quelques 20 et quelques personnes lépp lu ñëwaat rek loolu lañuy partager partagé bu leen koy laaj nak dañ leen wax né ah, ah ah kuy ñëw tay buñu ñu joxé 100000 francs ñu né kuy ñëw buñu joxé 100000 francs da nga indalé benn téeméeri dërëm téeméeri dërëm pour organisation bi parce que dama jël ay agents pour fay leen ci buñ paré Euh, ñu biñ paré ñu jëndaat ci ay lampe solaire buñ défaré mbar ba pare jënd ci ay lampe solaire jënd ci ay poubelle mbaar fëgg jaay ñu dikk ci organisation tegaat mar mi ñu né légui képp ku amone 2 m 50 boy buñ lay natal sa place 2 m 40 lañ lay natal dañuy man 10 minutes dara ku dugg mbaar fëgg jaay xamné organisation nek na xaalis mbaar fëgg jaay buñ démé mu lak ñu anniversaire ko anniversaire anniversaire yi ñu koy defal lañ defoon suñu kee lañu jël jàngalee ko kamil ba bi bi mujjee jeex si la jeex nga xam pour fay ko ñi nga xam ñooy jàngal kaamil jënd ci miskit saraxé ko nga xam loolu mënoo koo séddale sëriñ boobu moom mujj ñëw ci ci ñi dañ ñi dañ joxé dim nimbal wa parce que fofu la ñëk a ak mom ah wa waaw parce que ah, ak malik Gakou mi leen digoon malik Gakou mom gis ko moom ba légui ñëw malik Gakou mom mom dafa nax saay très bien ak otoom yu rafet <laughs> ba sëriñ bu rapidement ñu daanale sëriñ bu bi mujj sëriñ bu dafa ñëw mhm. yoon nañu ay élément bi ñëwé ñu ne sëriñ bu nee dana génne cinquante millions dugal ko ci crédit mutuel bu. Euh, chambre de commerce bi. Ah, léegi dafa bëgg ni mu leen dimbalee mooy ku bëgg nga dem déposer mën nañ leen mën nañ koo lebal ba cinq cent mille ñu ne ko yow bala nga ñoo wax lebal nga jàppale ñu ko lakkale kay da nga naan ko jàppal ci lii ba pare dama kaay ma lebal la say moroom yëpp dañu fiy ñëw indi seen ndimbal ah indi seen ndimbal yow nga ne ñëw kaay ma lebal leen. léegi bi ñu bi ñu werantee ci loolu. bi ñu werantee si loolu mu toog ba mu yàgg mu wooñu yor na fi sax yoon na fi sax fàll ba muy jéem a répondre si rajo bi mais bi mu boo toogee toog mu wootee bi mu wootee biñ dikkee ñu ne ko ñun dañ ñoo bett ndax yow doo jiite sàmm de commerce bu dul dara sax bu marché bi lakkee moom moo fa njëkk ñëw moom moo njëkk dugg ci marché bi kii di wax ne mooy délégué principal bi bi sëriñ boobu di dugg si di ñëw keroog dugg si marché bi da ko doon opposé ndax moom mi ngi doon politique si Mariama Sarr moom Pape waaw moom mi wax ne mooy délégué principal bi. moom ma Mariama Sarr gars yi dañu koy wax ne mooy yaayam kon ma xam ne dañ koy jéem a nax te na bàyyi loolu. très bien waaw su ko defee. Hmm. mën naa ko laaj benn question. parce que dama gis ne mbaaru Fëgg Jaay boo fa duggee. après lakk bi. Hmm. dafa am benn mbaar boo xam ne dañ ko tuddee. président Ahmed Youssouf Bengelloune. lan hmm. mo waral lool ri ri ri ri. ben ri wa wa ku lool nit nit. lool nit ku fay. ni deglu ko babakar deglu ko. mo xagn ni dinañu wax lu waral lool lool nak moo ñu yàqal ñun suñu combat sax ak Mariama Sar ba genen lañ ci ay Ahmed donc ñep génne nañ li bëggoon sax mënuñ ko xam nga xam nga lool tay yow mi nekk sa place di political euh, Bengelloune ah xey xey xey na rue bi Bengelloune laa ko tuddé ki xeyna am Ousmane Ben ki Ousmane Noël Dieng laa tuddee kii rarement sax amu furi waaye ñoom gisaguñ ko fu ko tuddee waa kii na sëriñ boobu laa ko fa tuddee. mais tur boobu amul lu ko indi. amul lu loo xam ne nii. waaw moom laa lay wax moom laa lay wax. loolu waa am taxawu marché bi dama leen di lancé ngir yàlla. ñoom mënuñ si dara. ñuy am ko jéem a ñun dindi leen ko bëgg nañ ko parce que. Lamine xam nga sax moom dañuy yàqal mais mënu ci dara loolu lii nii ah. lii ñun ñi ñun ñi leen di poser ay question ñun ñi leen di invité ah. xam nañ ne ah. am na politique bu baax donc nag rue Ahmed Bourou Benzen boobu def leen lu tout ngeen jële ko ci marché bi mm. léegi xam nga ñëw yéen commerçant yi am ngeen ay ténor yoo xam ne nekkatuñ fi El Hadji Gorgui Diouf xam nga ko délégué la woon lu mu deful ci marché bi amul. waaw ñooñu nag ñooñu ñooñu xam nga ndax. gënee leen leen gënee leen ñoom politiciens yëpp sama question bàyyi mu jàll. waaw kay bàyyi bàyyi bàyyi waxal ko loolu. léegi su léegi su ko defee ñoom ñoom dañoo dañoo waroon mbaar seen rue ah Ahmed Ben Saloum jaar fa ne danaa leen jox ngeen mbaaral ngeen mbaar rue bi ñu mbaar seen rue bi tuddee ko Ahmed Benjaloum ab serigne tri ba sax serigne ko tuddo ab serigne lañ ko tuddee won publicité la xam nga yoy yoy lañu def yoy nak yoy nak dañoo yàqal ñun merci merci collectif merci suñu digënté ak autorité bi parce que li tax may insisté fi wa kay yene ngi ni né benen kurelu kuréelu serigne bi mo nekk ci ginnaaw dafa politique mm. ñom sen président mm-hmm. on lui reproche que ne dafa and ak Modou jaay rahma moy politique mo andi politique bi ci marché bi donc duñ fi nekkaatee nan la rue nangam rue Modou jaay rahma et pourquoi pas les commerçants mm. loolu mooy yoon ah, xam nga jërëjëf ñu gërëm. Ah. waxtu wi jàpp na euh, wax kàddu gu mujj gi la muy doon bul tudd Ahmed Youssouf Benn waaw waaw kàddu gu mujj gi moom. Ah. mooy euh, ñu ngi woo waa Kaolack yëpp euh, si assemblée générale bi bi war a am le 29. jeudi à partir à partir de quinze heures la incha allah rabbi su ko defee ñi ngi woo waa Mar Santal yëpp ñu mm. jéem a taxaw. jéem a fal seen délégué principal bi nga xamante nii mooy représenté marché central Kaolack marché central nag bu ñu ko waxee mooy coin yi nga xamante ni ñoo encercler marché bi parce que am na ñu siy wax ñu bëri ñoo xamante nii sax euh, boo leen doon bu ñu doon tey bu ñu doon tëj marché duñu tëj mais képp koo xamante ni bu ñu tëjee marché nga tëj concerné marché central concerné la te dañoo jëm si jamono joo xamante ne nii euh, euh, autorité bi gis nañ ko mu taxawal ay mbir yoo xamante ni xëy na mun naa forcine la ko bëgg defee. te bu boobaa commerçant yi rek ñoo siy loru la dal waa marché na bàyyi ñun loolu la ñuy éviter parce que dañoo dañoo dem ba c'est trop tard ñu yéex a jóg. Mm. ba fi mu toll nii mënatuñ pour nga jot say place waxuma la bala ngaa jot sa place sax ñàkk nga sa famille ñii gaañu nañ si mm. ñii kenn xamatul fan lañ nekk. kon nag waa ñun nag yàlla def nañu yàlla may nañu ay may nañu xel may nañu xalaat ah, xam nañu ay jëflante xam xam-xam la ñuy doxee euh, pour xalaat li nga xamante ni mooy njëriñal marché bi moo tax loolu nag duñ bàyyi ba. muy daal suñu kow ñuy jóg di ko yuuxu fekk c'est trop tard. Mmh. parce que kat homme d'affaires moom homme d'affaires rek la ah homme d'affaires homme d'affaires nañ ma na ma yàlla baal politicien rek lay doon man moo tax moom <laughs> mi ngi noonu seen mbir moom mi ngi noonu waaye su mmh. defee ñun nañ gën a moytu gën a takku gën a àndoo gën a bennoo xam ne intérêt marché bi moo ñu tax a jóg maire bi li mu bëgg ci marché bi bu dee lu baax yàlla na ko yàlla defal bu dee lu safaan yàlla na ko ci yàlla génne ah, ba xalaat si lu baax yàlla soppil ko muy lu baax ndax marché bi kuko ko réussir réussir kaolack safaan bu ci amé commerçant bé ci gëna perte ka maire bi té kon dañuy def rek euh, succès bi nga xamante bi kaolack am ba teg maire bu bees bo xamanténi dafa jaar def cursus bu yaatu ci économie ñepp xam ko ci Sénégal ah, mu motali ko ci marché bi euh, lo rek lañ koy ñaanal di ñaanal équipe municipalité bi di ñaanal autorité yi nekk ci dëkk bi yëpp di sant nak wa kër gi nak vraiment hmm. kër gi mom kër gi bëgg nañ mom mu doon euh, kër gi yi nga xamanténi dañ leen di tuddu ci biir Sénégal parce que dañ bokk waaw <laughs> dañ see bokk waaw. très bien ñu lay gërëm Alassane euh, euh, euh, ba suba ak euh Babacar non lañuy def rek ne la bu suba ak diko jox tamit dig dajé ñi nga xam ñi ngi doon sétane de passage ba la ñoo. xam ma ngi wax ngeen fogné waxi dof lay wax waye bàyyi leen nekk leen fofu ci marché bi jël rue yi naan. rue diko diko tuddé diw rue diw da ngeen di xex sen li gën a bizarre sax loolu ay juk rek yow yaay tuddé rue. non rue du ñun du ñun ay individu ñoo koy def. ñooñu ngeen di wut ñoo ñu ngeen di wut ay yar ñu bàyyi lu ñuy def. ñu bàyyi li ñuy def parce que tay non xamalal la parce que tay li may wax nii man xam naa ko bu baax te yéen ñii seetaan xam na. gis nga politique moo andi lii yëpp. Mhm. ñii ñu naan Serigne bu am na beneen association bu mu créé. te Serigne bu nee na leen man du ma politicien léegi lan la. ah ngeen jël seen wi tuddee ko benn seen ña fa nekk bu ñu àndee keneen ki nu muy def du ñu xeex seen bi politique bi lañ war a génnee ci biir marché bi. exactement loolu la demee wax si leen sinon da ngeen fa xeex ñu ñu leen di ak marché sax ñëpp ko bokk mënoo ji waroo jël riz sax tuddee ko sëriñ génne leen ko wala nga tuddee ko politique say ah. parce que lu ñëpp bokk la Babacar ñëpp ko nggak gëm naa nggak nga nekk ci micro bi di wax. ba sukay tey xëy génn àdduna ñu tuddee fii. studio bi sukay loolu mën na nekk génnal ci loolu génnal ci loolu. non day am génnal ci loolu. waaw day am incha allah Babacar génnal ci sukay génnal bul bul yóbbu sukay maa ngi souhaiter happy birthday. waaw uh, ma sister Daba Konaté ak doomam lu lu lu lu yéeme moog doomam ñoo bokk même anniversaire. 27 décembre ni ki tey la ñuy fête seen anniversaire maam Baye Daba Konaté maa ngi leen di souhaiter happy birthday dund leen wér leen am leen jàmm bu bëree bëree bëri yéen ñi ñuy seetaan maa ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah. jëf ñu ngi lay gërëm su kay ba suba ak jàmm. incha allah ça a été amoon nañ mbégte rek ak contentement di remercier bu baax a baax. tonto la mi naan ko macha allah daal en tout cas gis nañ ne affaire bi mhm. lépp leer na mais li ma métti mooy Babacar sama question fa ma koy commencé man damay door a pare nii pour poser ay question Babacar nag lépp <laughs> mais ñooy jaajëfal ñu doon seetaan baax a baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah. yaa ma ngi lay gërëm ba suba ak jàmm incha allah. damay jaaree foofu di nuyu may Makeup mi ngi foofu centre commercial deuxième euh, deuxième porte. Mm-hmm. mooy def makeup yu baaxee ongles yeeg yooyu ci décembre bi. Mm-hmm. xale nañ gaaw daw foofu dem mu defal leen ba mu baax. jërëjëf Assane Makeup ñu ngi koy gërëm gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi daan seetaan ci marché central bu Kaolack xale yi bu ñu fa demee. dina nu mel ni gaynde ak yow tamit ak yow tamit boo dóoree dem moom may kii la <laughs> parce que xam naa ne dañuy tegale ay yooyu toll nii donc mën nañu daw gaaw profité wu merci xam naa ne moom boo génnee léegi dañ la dóor ba ngay bëgg a dee ak service commercial ñu ngi gërëm Lamine Ndaw moom mooy secrétaire chargé de l'information Lamine Dia secrétaire chargé de l'information ànd collectif taxawu marché central bu Kaolack ak coow li nga xam ne jamono ji judd na ci marché central bu kaw Kaolack moo nekkoon tey li nga xam ne tey faram-fàcce nañ ko ci euh, plateau bi donc ñu ngi leen di jox di daje ëllëg incha allah ak beneen gan ci beneen jotaay ñu ngi gërëm ñi nekk ci ginnaaw yëpp caméraman yeeg ñi nekk ci régie bi Jili Baye Mor Serigne bi ak euh, DG waa AFSUD nu mu demee les fans du super jamono feete nañ ñoom 24 décembre xam naa ne saa a été euh, ak Omar Pène mu woy gars yi bégee donc nanu euh, jeexal at mi ci beauté bu ko defee 2023 coow marché Medina Baye du ñu topp ceew marché central du ñu topp coowal Ousmane Sonko aji saar du ñu topp ñu am mbégte ak bànneex boo xam ne dañuy gën a si def ci poos yi dara bu ko defee ñépp àndandoog taw féex ak tay seer gu a sax dàkk ci réew mi mm. jàngeen ngeen jëf yendu ak jàmm suba ak jàmm